wa kaana xaqan alayna nasrul mu'minin wa kaana xaqan wa kaana xaqan alayna nasrul mu'minin asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di nuyut di leen ziyaara ñoo ngi fii tey ci dëkk buñ naan kër baabu Coumba di dëkk boo xam ne mi ngi nekkee ci ginnaaw Passy digganteem ak Passy daanaka ñu koy xamee ci ñaar jàpp ñetti kilomètre ñu ñëwoon fi nag ci màggal gi nga xam ni at mu jot dañ ko fi amal ren jii mu dëppoo woon nag le 24 décembre 2022 di màggal goo xamante ni at mu jot dañ koy amal ci dëkk bi muy ndigal loo xam ne mi ngi bàyyeekoo woon ci Serigne Saliou Mbacké yàlla na yàlla yokk ay leeram taasu ci barkeem mu joxoon ko Serigne Issa Cissé liggéey boobu nag moom la ñuy wéyal ci dëkk bi at mu jot lépp tënku ci daayira bi nga xam ne mooy amal bés bi ñu dëppee ko wakkaana xàqan mu nekk daayira bu Pastef boo xam ni at mu jot daañu yóbbu màggal gi fu gën a kawe at ma weesu woon ci mbooleem loo xam ne rek bis bi laaj na ko dañu ko ci def màggal gi nag ñu amal ko ci njiital sëriñ Abdou Karim Cissé mi nga xam ne mooy xalifa mbooleem njabootug sëriñ Babacar Cissé mi nga xam ni mooy waajuru sëriñ Issa siise mi ndigal li wàccoon ci moom bàyyee ko woon ci sëriñ Saalihu Mbàkke sëriñ Babacar Cissé ba léegi di waajuru sëriñ Ibrahima Cissé ak sëriñ Cheikh Cissé ñi nga xam ni seenu njaboot ñi ngi ci dëkk bi ànd ak ñoom màggal gi daañu dem ci ñoom ñëpp taataan seeni kàddu ci màggal gi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci kër Baabu Kumba bi ñu xëyee nag tàmbalee nañ ko ak njàngum alxuraanul karim mu yaatu ak durus ci wàllum xasida ci lim yu takk lool aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina moolana mohammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ila yawmi ddin mbokki noo ngi leen ziara mbokki kër Baba Kumba mbokki daayira Wakana Haqqan yëpp noo ngi leen ziara di leen nuyu ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne sunu borom moo ñu ko jagleel kon ñu fas yéene waxtaan ak lenn ci suñuy kilifa ci loo xam ne yaakaar nañ ne incha allahu taala danañu amal njariñ amal njariñ it ñëw suñ ginnaaw incha allah kon bu ko defee li ñuy laaj suñu kilifa yi toog mooy li nga xam ne moo boole waa dëkk bii ak sëriñ Touba ba nga xam ne tey seen tur yegg na fu ne ci àddina waaye mboole njabootu suñ Touba ku fa mos a jaar it xam na dëkk bi xam na fi lu bari xam nañu ñu dëkkee ci dëkk bi kon bu ko defee loolu la ñuy njëkk a laaj sunu waajur yi toog di sunu maam sëriñ Laayeen Siise kon li ñu koy laaj mooy li nga xam ne moo boole sëriñ Touba ak sëriñ Insa Maram ak yitte ju kawe ji nga xam ne Insa Maram am na ko ba mën a am ngërëmal sëriñ Touba ci ñi nga xam ne ñu ko jiitu woon te dëkk te nekkoon sëriñ Touba noonu la ñu ko amee loolu lañ bëgg nga waxal ñu si daal. duñ mën a jëriñoo incha allah. lu wax loo xam ne fañ koy waxeyaat. dafa xaw a jafe. waaye su ko defee nag ñu wax ci li xam. loo xam ne lii fañ ñu ko waxoon lii fañ ko fekkee lii fañ ñu ko waxoon lii fañ ko fekkee fekkee ko xam ko. li nga dalee ci moom muritam gi. Ah, ay baayam. Ah, Baba Kumba. Baba Kumba. ak Ahmad Kumba. naaw yàlla yuntam ba ñoom. dañ dañ dañ dañ yëbbalu woon ci seen nijaay jóom Mbaaxe seen nijaay moo doon Jóob Mbaaxe waaw Jóob Mbaaxe ak Kumba Dàgg ñu ko ma ñoom ñoo bokkoon baay moo doon seen nijaay moom nag dafa fekk mu baxe ko ci sëñ Tuubaa mu siixal ko mu digam ko Sàmba Jee ñoom foofu lañ laxasaay woowoon seen laxasaayu ci lañ defee loo xam ne barikalla waaw ba lañ jëlee loo xam ne ci seen tàggatoo wax nañ ne li ñu xam ak xiir gi xiir bañ tërbiyee bañ fa tërbiyee nawet wàcc ñaari sàqi juróom lañ xamoon ñaari sàqi juróom lañ xam ba pare laxas yi liir ya teg ko ca sàq ya doxe ko xàdd ya ci eh, lañ fa jëkk a def ci lu mën a wax foofa lañ jëlee nag lañ doon ñu do ko dugg sëñ Tuuba nag doo xamut ñoom ba ba ni sama koto xinsa jog topp ci seen kooku gannaaw yàlla ak ñu tëmb moo fi doon mag ak Ousmane Natu ma la nekkoon kaw la ñoo doon mag jiitu woon topp ca leen seen bàyyi toppoon da dem Touba ak dikk sëñ bi nag moom yàllaa ko jagleeloon ci sëñ Touba ndax da bëri na ku ko xëppoon ma xaama mm-hmm. waaye li man ci sëñ Touba mënoo ko dafa mu doon xàgg ci sëñ Touba xàggu waaw ñi ko mënoon bëriwul li moo tax lii yàlla may ko bëriwul kum ko may ci sëñ Tuubaa waaw man mi dey maa da rakkam topp ci koom man gannaaw yàlla ñu tëmb moo siixa toppoon ci koom ci mag ndax Ousmanetou yàlla def doon newu doon ci kër gi waaye mu ngi woon kaw rek kooku nag dafa gaaño boobu ba léegi nag sëñ bi mooy doxal yoonu diggante fii Touba diggante moog Touba doo ko doxal ba man di baxee ko fi dem kër Laay Soxna man nekk fa foofa laa neexoon man daf ma yarut man yar waxuma ci kër gi waaye tijaan ya ma yaroon waaye dama fa baxee ko nag ñibbisi bu ma ñibbisee muy xànd ak man da dem Touba te jamaanu sëñ Sall sëñ dem naa yóbbu na ma fa ñaari yoon ginnaaw bu mu nelawee ci yoon yàq ñëpp yaakaar naa ba mu newele ba bañ xamat ay fan rek la ma jiital ma yóbbu ma ci sëñ Abdou Lahat waaw boobu sëñ ba ku xëy a xiir a xiir barkalla ah loolu waxtaan bu neex a neex a neex la defoon ak moom suñu sant yàlla boobu ba léegi ah mu ngi gën a yàgg rek mu ngi gën a yàgg rek ba li xam ba ci jamono sëñ Saliou sëñ Saliou sëñ Saliou nag moo sosoon lii bis bii ndax bañ ko santaane ba pare. def ko ne. sëñ bi mu ne ko ah mu ne ko mu boole ko as tuut naa ne fukki junne ak ñaar la ko joxoon. ne ko soo demee. nga def bis bii dañ ko dajee nga tëj ko. moo waral bis bii loolu moom ñëpp xam nañ ko wala ñu bëri xam nañ ko waaw ñu bari xam nañ ko xiir na nag sant yàlla bu baax a baax a baax ñu sant yàlla sant yàlla bu baax waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare. leen bokk di ñaan yàlla boole ñu defal jàmm. yàlla nañ fi teewe ay at yu bari bari bari ci kanam. daanaka <clears throat> fekkuñ sax murit baaxoo ko. Mm-hmm. nag daf loo xam ne affaire lu wéy lu ñuy nettaliwaat la. Mm-hmm. te lu wéy lu ñuy nettaliwaat baax na ndax lan. Mm-hmm. mooy njaboot gi dikk. ku ci bëgg a baax roy loolu moo tax ñu di ko wax di ko nettali fii lii sëñ bi wax nii kii tey moo mag ci ñi ba Aliou Kumba Baabu Kumba ak Hamad Kumba ak Layin Kumba kii moo fi mag tey ki jëkk a wax nii man rakkam la di ndawam li ñuy wax nii dañoo bëgg mu leer rek moo tax ma di ci wax waaye waruma coono wax ndax muy kilifa gi waruma ci ju ne nag la koy tepp ba borom wax dafay nekk lu mënta ñàkk waaye waruma ko ba pare wax ko borom xel yi dañoo wax ne gannaaw waru ko lan noo tax mu di ko wax defe naa mooy jawaab bi waaye dañuy leeral loo xam ne kii xàggut ci mu ñu ko gën a xam fu waaye daf ñu cërale pour ñu wax ko te ndigalal santaane farataay santaane ngëneel ci santaane mooy def waaw léegi ñooñu mu wax noonu yàgg nañ ci murit gi ndax ci beesu murit gi ñoom ci lañ duggee ci murit gi lii ñu am fii fekkuroon suñ bàyyi am fan man koo def ndax seen fan yi waaye ñoo ko sos ndax ñi fi nekkoon nii kañ jébbuloon ci sëñ Tuubaa la jébbuloon muy sëñ Moussa car maam Diop Mbaaxe mi bokk mi nga xam ne moo jur moo jur suñ mooy nijaay suñ suñ bàyyi maam Jóob mbaax yi moomu taalibe la woon ci sëñ Pakacar sëñ Pakacar seexal ko Moussa la tudd waaye dañ ko naan Seex mbaax yi moom ci laxasoo teel a wàcc ñëw ni mu ko waxee ni suma baay man di Baabu Kumba ak Hamad Kumba mi jur kii jëkk wax nii te ñu la ko wax sëriñ Laay muy borom dëkkëb kër Laay soxna ñoom ñaari ñëpp dañoo tërbiyee ci jëm ju mbaaxe maam ju mbaaxe wàcce leen muy tërbiyee tërbiyaatuwaat maanaam seen nijaay dafa tërbiyee ñu wàcce ko ñoom ñu tërbiyee ci seen yaay mu wàcce leen kon xam nga ni piisa bi dafa gàtt seen ne seen seen nijaay dafa tërbiyee wàcc ñu dem tërbiyee seen yaay mu wàcce leen kenn ku nekk dañoo doxee xiini ndax xiini ku koy def moo ëpp pay jëf lañ wax dax la Moussa ko wax ay liggéeyam ab liggéeyam mooy Mamoor Jaara xiini jaay Bamba xiini moo xëpp pay jëf xiini moo xëpp pay jëf foofu nag fu mat a taxaw di ko seetlu la xiini bu xëppee pay jëf balaa ngaa jëf war nga xiini ñoom boobu dañoo xamoon pas-pas xamoon xiini seen ni yaay am ku ñu wëlbati ko ànd ak moom Jóob Mbaaxe moomu ki doon baayam menge moo sañ ci dëkk bu ñu naan kër bëkkëri ci dend ak ci si mor Bakary Mbengue mooma moo jur Kumba Dagga muy muy caatam Cheikh mbaax Mbaaxe mi ñuy wax Bakary Mbengue jut ko muy ni muy càmmeñ ci Kumba Dagga Kumba Dagga jut Hamad Kumba mu jut kii mu jut Baba Kumba mu jut ma mu jut ku ñoo wax Layin Kumba Layin Kumba mooy usmaan mi mu wax nii moog sëñ Insa ñoo xawoon na doon morom waaye moom magoon sëñ Insa moom mu laxasaayoon ci sëñ Basiru Tip ci ñi jëkk a dem Tip ci la bokk moom Ousmane moomu. ay doomam a ngi fii. waaw xëy na gune yi nañ ba mënuñoo taxaw nettali ci waaye ngeen xamee ko noonu. ñoom bañ jógee rek dañoo dellu kër ba siru ñoom foofu lañ nekkoon. loolu moo waral di sëñ Essa itam. dikk comme noonu la woon te am nañ maam yoo xam ni bi muy dee dafa battale woon ay sir ne li gune yi dafa naan bamba waxal sa waxal dàq loo ci wax mu neex maire booba nga xam ne tey man moo jur maam maami moo jur mooy maami suma yaay dafa jëloon ay sor battale ko fa ne su dikkee ngeen jox ko ko booba gune yi bu ñoo fa dëkk waxte booba sëñ Bamba feeñagut moo tax nga xam ne mbir mi daal dafa laaj dafa laaj wax laaj settantal soo xamul nag ba wax ko du deesu ko mën a dégg waaye soo xamee ba wax ko su ca xalaat toppee njëriñ mën na cay génn te loolu moo war ci gune yi ndax xam na ñoo xam ne ñu ngee dem rek xamuñ xamuñ quest waaye képp ku dem di liggéeyal sëñ Bamba mm-hmm. da ngaa war jiital yéene mm-hmm. soo jiitalee yéene loo ci teg mu la mm-hmm. ndax ñi nga xam ne dañoo sant ñam wax nañ ne xet lañ leen la leen sëñ Tuubaa jubbantiloo ñu jubbanti mu wàccee leen dañoo duy ba fees ñëw àndale ko yéene ñu fecc li leen ñu dem ki dikk te andiwul dara ñu topp ko raxas ndabam yàkkali ko defar ko ba mu jëkk ñu door ko duy yal nañ bokk ci ñi nga xam ne balaa ñooy dem fekk nañu fees ñu fecc li ñu barke bi rasul sallam xam naa mu ngi gudd sax waaye bu beneen yoonee yal nañ ko fekkee ñu am luñ ci yokkaat moo tax kii nii bàyyam jamono bi murit gi da métti suma bàyyee ko mag mu taxaw fa di jàng maay bu ak ak ak muqaddimaat ak jes bu ñetti tiir yi ñoo fi nekkoon bi tàngoor yu ñëwee mu daw daanu ci kambu sabra booba dëkk bi ñu dëkk kàmb gi nga xam ne ci lañ daan tabax mag ñi xaw a doon mag ñëpp fàttaliku nañ ko. Mm-hmm. moo lee fi jëlee li nekk oto camion yi suuf yi waaye boobu dëkk yépp genn kàmb la dem ci ci tabax. Mm-hmm. bi mu ci daanoo suma maam Kumba mi jur yaay mu doon caatam. Mm-hmm. mu yuuxu ne Hamad dee na. bi ñëwee mënuñ ko dañoo dem ci néeg rocc ci gayet jox ko ko mu ngëb ci gayet bi ñu génnee ko ci safara si ndax kenn mënu ko ci woon a fekk. te booba xaal la xamee woon. Ah, dara daru ko yére yi mu sox sax lakkut waaw ah, ah, am na ñu koy def ci wàllu machine yi tubaab yi di def. Mm-hmm. waaye bii du doon loolu. ndax boo fekkut ñu développé développement bu xam ne mën ñoo xam li tuwaab yi di doxal. Mm-hmm. du doon itam ñu jàng xuus ci téere yi ba mën a xam téere yoo xam ne mën nañoo jàngale lool mm-hmm. boobu ñoom ngëm a leen yóbbu woon. ngëm rek a yóbbu. ngëm de lu am solo. li ma ciy bëgg a wax te bokk ci dama ko ciy sof ñun ñii nga xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi mooy ci tarixa donte konoon tarixa yi xuutal nañ leen tur yu bokkul tur yee leen xuute waaye jëf ci benn la amul benn awraat boo xam ne jógee na fenn dudul ci duratul bay laa ci la wirde yëpp jógee ko du xaadir du laayen du murit du lenn wirde yi foofu seen cosaan suñ ca dajee léegi nag dikk kii sant jaw kii sant Touré kii sant Cissé kii sant Xuma loolu la waaye xay yëpp benn lañ benn naanu waay la mm-hmm. salaa alayhi wa salaam duhut ñaari géej benn la ñëpp ci lañ naanee ji mm-hmm. kon nag li may wax nii maa ngi jéggalu yéen ñëpp du ma jéggul sax am na ñoo xam ne maa ngi waxee ci sëñ Bamba waaye foofu lañ ma laajee. Mm-hmm. waaye suñ laajoon ci tijaan gi ni ma respecté murit noonu laa respecté tijaan max ma tijaan ma yar. tijaan ma jàngal. Mm-hmm. waaw suma sëriñ bii ma àndal muy sëñ Cheikh. Mm-hmm. dara ko sëñ instant maram mii tey. toppoon ci koom rek te samp bii tey moo ko nokkos. tijaan ko yar. kon ñun xamee wuñ loolu ñun li ñu xam ne fu ñu a amee lu baax rek. Mm. si lu waxtaanu sëriñ Tuubaa ak Barthélemy fu ngeen gisee lu baax. dem leen ngeen uti ko. moo tax ñi nga xam ne dañoo xam. te xam biir. dañuy wax ne murit du tarixa murit du tarixa ndax murit gannaaw mu ngay jël wir daaw tijaan. jël wir daaw xaadir jël wir daaw laayin jël wir daaw saasali ak dabaax yu yëpp mu di ko wirda kon mu di tiyaan ndax tarixa yi ci bëri yëpp na ñoo wax ne bii mooy suñu da kenn du wirda bidul bii murid am amul amul frontière foofu dañ ko joxe loolu moo koy def Sëriñ Tuubaa surga la ci Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xaadimam la dama dajeeg benn sirif ñu am li ñuy joxante ñu ki ma ne ko man li ma def nii mu naan ma ne ko sëñ Bamba laa ko def te it sañoo maa gàntu ndax man surga surga xatu laa ndax sëriñ suma sëriñ mm. mooy sëriñu rasulaay nga de sirif hmm. kon ñun say surga ki de sa surga ñun ñoo de surgaat hmm. manoo maa xaye di ci la bokk <laughs> mu mu mu lama lam junjoon métti hmm. ko lool ma ne ko jéggal naa la kon nag loolu dama ko dolli ci ci ndikkal ci ñun waaw am na solo lool wax dëgg yàlla ndax li mu wax nii rek daanaka suñ tubaa dafa am fu ko résumé ci lu gàtt ndax suñ tubaa daa wax ne kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yaxiida sawaawun intama ila al jilaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum xatan ala sawaabi ñëpp ci njub la ñu nekk boo ci jël ngir jëm ci xadratillaahi walan yaxiida yi mooy sart bi nag te jengoo maanaam amoo ci benn sikki sàkk nee na wallaahi yegg ci bépp bépp bépp bépp boo boo mën a jël rek kon loolu loolu loolu ni wax ne Sëñ yoonam wi du tariixa loolu lu wér la daarul moxtigee boo demee wér da tijaan dañ koy joxe wér da xaadir dañ koy joxe te ña koy joxe ay doomu sëñ Tuubaa lañu ay sëtu maam Cerno Birahim lañu kon yoonu murit moom amul amul amul amul amul am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem. moo tax sëñ Tuubaa bi ko tubaab bi laajee mu tontu fukki laaj ak juróom-ñett yooyu bokkoon na ci li mu ko laaj mooy lan mooy murit mu ne ko al islaam wal al al imaan wal islaam wal ihsaan li képp kuy dund lii rek murit nga. te loolu nag ku ci génnee sa bopp nag wax dëgg yàlla xamatuñu bañ kuréel nga jëm kon maam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan sunu borom yàggal seen taxawaay te yokku wér gi bu defee nga ñaanal ñu rek incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla boole ñu baal di ñaan itam bis bii lépp luñ ci yëngu mbaa ñu dal ko yàlla nañ ci daje ngërëmal suñu borom barke Seexul Xadim ah li nga laaj noonu itam eh, am nañ ci eh, tuuti luñ ci xam muy sëñ Ibrahima mi nga xam ne moom lañ tuddee bis bi mm-hmm. diggante mook ay kilifaam yi mu nekkatoon mm-hmm. ndax eh, sëriñ Cheikh moo ko dalal jàng boole woon ko ak rakkam sëriñ Abdou Karim nekkoon ak ñoom ci daara ba dellu siwaat laxasal ko mu dellu moom moom mu yoroon élimaan gi moom sëriñ Cheikh bi sëñ Ibrahima ñëwee it mu yëkkati élimaan ga jox ko eh, mu yore ko ñu yëkkati sëriñ Assane jox ko mu yar ko ba laxasal ko mu dem jàngi moom it bi mu ñëwee mu dellu yëkkati aat ilimaan ga jox ko sëñ asan ci rafetal ak mhm. bokk ak ak dëkkandoor diggante moog sëriñ Insa itam naka jekk bi mu ñibbisee moom la dëkkat ndax dañ leen xaajale woon moom mu dëkk ak sëriñ Insa mhm. sëñ Abdou Karim mii moom dëkk ak sëriñ Cheikh nii lañ dëkkee woon waaye nag mhm. Eh, lépp loo xam ne mu ngi fi yëngu ci mbiru diina mm-hmm. mën nañoo wax ne suñ borom a ngi ko jaaralee ci sëriñ seex ndax sëriñ Essa moo doon seen kilifa ñam ñoom ñëpp eh, nettilil na ma ne mm-hmm. dafa jandoon benn kaamilul mbindum loxo mm-hmm. mu ngi ko jandee woon soorom ci juróom benn fukki dërëm ñëw tàggu seen way juru góor wa ngir laxas jàngi mu ne ko demal nga toog déglu ma ba mu am ay fan mu woo ko mu ñëw mu ne ko dama bëggoon nga toog de suma loxo de suma bët de suma tànk moom loola moo ko tere woon a laxas jàngi waaye moom it ba ko defee mu toog comme ni ko ko way juróom wa sante woon téye lépp ñoom ñu dem jàngi ñoom ñi nga xam ne ñooy ay rakkam waaye ci eh, deferuk suñ borom ba ñu ñëwee ñoomitam seen xam-xam yi yëpp teg nañ ko ci suuf jël kilifteef ga lépp jébbal ko ko ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh toppoon ci moom ci ñoom wàllu ñi nga xam ne ñooy ay góor mosul maa gis ci diirab li ma dëkk ak ñoom lenn lu muy jaay loo xam ne duwul day ñëw ci sëñ Serigne Issa waxantee ko fa boo koy fay daf la naan tegal ci loxol Serigne Issa teg ci loxoom dootu ca am soxla lu dul moo koy woo delloowaat ko ko wala nga xam ne day am soxla ñëw jël lu tolloog lam ca soxla dem def ko ba balaa muy jeexee loolu ci benn la woon mm-hmm. sëriñ Ibrahima itam loolu la dund ak ñoom yàlla dogal na man mii de sama xam-xam nu ca tuuti tuuti su ma yeboo ne la dalee deux mille euh, quatre vingt ba bi muy wàcc liggéey amul menn at moo xam ne duwul ne danaa bokk ak moom cib néeg weer woo xam ne ñoo koy bokk benn néeg weer moom sëñ Ibrahima muy loo xam ne wóor na ma ne kum ko defatoon ku dul man buñ xëyee dañ la wax sëñ bi naka yaram wi walla ñu ne sëñ bi taalibe bi naka yaram wa yàlla dogaloon na loolu moom dogaloon na ko ci suma digganteeg moom yàlla dogalin mu doon ku ku ku ku am njëriñ ku bëri yërmande ku nangu kilifteef ku mën a dimbale ay bokkam ndax loolu moo ma boole woon ak moom bis la xëy ne ma dama eh, war a dem Louga ne ma dama bëgg ànd ak yow muy 2002 ba bi muy wàcc liggéey mosu ñoo mosul am menn at moo xam ne duur dana ànd ak man dem fa ñu bokk nekk ci néeg weer boo xam ne ñooy bokk di fanaan di bokk di yendu su ma yeboo lépp lu ma am ci googu wàll ci moom laa ko jëlee waaw ci moom laa ko jëlee te noonu itam noonu la defoon kii nga xam ne tey mooy jëwriñ ñi njaboot gi muy sëriñ Basiir noonu la ko defee woon itam sëñ Daara Assane ba ba mu jógee koo fi kenn ku ne ci ñii ma la wax am na ci moom loo xam ne amut ko ci feneen fum ko jëlee fudul ci moom waaw ci sëñ Ibrahima ci ak laa biiram ak yërmandem ak dimbale waaw mu doon jëmm joo xam ne wax dëgg yàlla ñun de ameel nañ ko ngërëm amee nañ ko njukkal ndeg fi ñu jaarale man mii bi mu jogee daara ñëw def ma jël ci loxol Ndiya Cheikh boole ma ak Serigne Bassirou ak sëriñ Moustapha yore ñu dañu jàngal li ma moo ma jàngal lax dir yu moo ma jàngal eh, dalal ma eh, osma yu ba ma osma yu dalal ma risaala ci laa doog a tàggooxe ak moom dem jàngi feneen boobu eh, bi ma dellu si waatee ci laa àndeek moom ci nii ma la waxee nga xam ne wax dëgg yàlla mosuma xam ci moom lu dul bëgg ay bokkam ak dimbale leen ak yërëm leen waaw dimbale leen ak yërëm leen jëmm la woon joo xam ne itam e, kër gañu ko xamee woon itam muy e, daaru kër Mor Xoroja am na fa cër bu mat sëkk ndax ku ne xam na ne ki nga yaakaar jox ko sa bopp bu demee ba yëkkati Euh, njobootam jox la kon xeebut la te loola seex Moussa si defal na ko ko yëkkati na euh, euh, doomam jox ko seen Ibrahima am naag moom benn doom bu góor tuddee ko seex Moussa loolu nag ab sëriñ nag su demee ba yëkkati doomam man koo joxub taalibeem boobu taalibe dee xeebawut waaw te loolu def Cheikh ànd na ko moom te terewut yàquloon dara ci diggante moo ki magam waaw lu dul ak defer mosu caa jaar waaw te itam kenn ci ñoom ku ne nga xam ne mooy sëñ Cheikh di sëñ Issa kenn ku ne tuddee na la doom kenn ku ne tuddee na la doom ci ci dundamit ak ñoom mosul am lenn loo xam ne moo koy sampal boppam wala mu di ko sempil boppam waaw moom sëñ Ibrahima ndax am na mm, doomam boo xam ne keroog bañ koy ba mu koy sëñ Issa di maye. Passy la ko fekk daf ko téléphoné na ko boo ñëwee ma maye soo ñëwee buñ julli buñ jullee tisbaar naa maye. bi mu ñëwee wax ko ko daf ko ne manuma cee teg dara de waaye nag bëggoon naa nga may ma rek ma dem laaj ko. te booba dogu na ci la mooy def ba pare kon xam nga ne loolu ku ko ku ko nangul sa euh, euh, sa kilifa desee loo ko dara ndax ku ne xam na ne jur sa doom yar ko da ca sonn ba mu mat ba nit dikk bëgg ko ñu jël ko jël ko ci yow joxe ko nam leen soobee loola kuñ xiliful manoo ko waaw kuñ xilif xilif rek moo ko man kon daal li nga xam ne moom la ñuy wax mooy yal nañu ko yàlla fayal sëñ Ibrahima yal nañu ko yàlla fayal ay kilifaam it yal nañu leen yàlla fayal sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen ci taxawaay bii itam yéen itam waaw sant nañ ñëpp sant nañ mbooloo mi yëpp gërëm nañ ñëpp ci kàddu eh, mbooleem njaboot gi ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp waaw waaleykum salaam wa rahmatulah. ñëpp di siyaara ñëpp di jéggalu ñëpp ci coono yeeg jotaay yi ak uh, ni mu demee ku nekk yi bàyyi nga sa yitte yëpp ñëw fekkee si fekkee ci bis bi ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp di leen ndokkale di ndokkale dëkk bi ak gan ñi ñëpp di jiital ci ndokkale suñu bàyyi Cheikh Abdoul Karim di teg Cheikh Mamadou Bachir sëñ Mamadou Cissé Cheikh Abdoulaye bàyyiwuñu kenn daal sëñ Moustapha Ndiaye ñëpp bàyyiwuñu kenn. ñu ngi ndokkale ñëpp ci bis bi di siyaare ñëpp ah euh, sëñ Maamit mi daf doon laaj lan mooy melo murit saadix ak mag ñi fi nekkoon ndax ñu ngi ci woonam déet waaw su fekkee loolu mooy laaj bi liñ ci xam moom mooy waaw euh, nañ jàngi woon sëriñ bi waxee ko ne mooy melo murit saadix muy ñeenti maqaamu yooya benn bu ci nekk xam nañ ci ñoom ñu taxawee woon ko wax dëgg yàlla loolu la xamoon ci moom ci ñoom loolu la nit ñi xamoon ci ñoom it ba leen doon jox seeni njaboot ngir ñemelal leen noona kon tabaarakallaahu loolu moom xam nañ ci bu wér na mi ñu ngi ci woon waaw incha allahu taala tabaarakallaa su fekkee dafa am ci yokkit eh, waaw waaw eh, noonu rek comme ni mu ko waxee melo yooya moom la moom la moom la moom la yàlla di wut ci nit moom la yonent bi di wut ci nit yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fii ñëw dafa mel ni melo yooyu la yàlla soxloon tam manqué woon suñ borom yónni ko pour mu mottali ko moo tax mu wax ne dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu baax yi kon jikko yu baax a ngi fi woon waaye dafa manqué woon lu manqué woon melaw murid saadix dëgg dëgg moo amutoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla yebal ko ngir mu matal nit ñi ci melo yooya kon loola ci lañ yar ñi fi jiitu ak ña ca topp ña ca topp bañ yegg si ci ñun ñi di xeñtu tànk yooya mbooloo mi fi teew ñu bari ci loolu lañ leen yar ci lañ nekk jàng a liggéey dundee sa ñaq kenn ku nekk ci loolu lañ la yar ci lañ la toqi ci nga nekk loolu it la leen ñëpp xamee woon ba di leen jox seen i njaboot ngir ñu wàll leen jikko yooya kon ñu ngi sant ñëpp daal ci gàttal di gërëm ñëpp di ndokkile ñëpp ndokkile bi ñu ngi ciy jiital sunu baay nga xam ne mooy xalifa ab dëkk bi ak ña topp sunu mag Cheikh Abdoul Karim Cheikh Abdoulaye Cheikh Amadou Lamine Cissé sëñ Babacar Ndiaye sëñ Babacar Touré sëñ Moustapha Ndiaye bàyyiwuñu kenn daal xam naa bu ñu lu bu ñu limee du ñu matal Euh, góor ak jigéen bàyyiwuñu kenn gan ak dëkk ñëpp ñu ngi siyaar ñëpp tabaaraka alhamdulilah. waaw jëf yi ko mën a seere jëf yi mën a seere ne ñu ngi ci woon ah jëf moom saay bu fi borom bàyyi ko ñu xool rek lam doon jëf mooy wane lim doon jëf maanaam ginnaawam mooy wane jëfam arab yi dañuy wax ne euh, euh, doom ginnaaw bi fi waaj jógee lam fa bàyyi. loolu mooy meññeentum jëfam bu ñu xoolee lam fi bàyyi rek daa ñu xam lam doon jëf fan la teg woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam li lay xamal ne moo gën a mat ñëpp moo gën ñëpp mooy abu Abubakarin Saddiq mi mu fi bàyyi woon mu wëyal diina ji ba mu yem fii mu bàyyi fi Omar bàyyi fi Aliin kenn ku nekk boo ñëwee gën a matal sa morom loolu mooy tegtale ne moom mu nga tegoon tànkam fa mu war a fa teg loolu mooy tegtale ne jotaay yii ñi fi woon dañoo nekkoon ci lañ war a nekk ba moo waral lii lépp nekk ci seen meññeent mhm, tabarkàlla alhamdulilah waaw ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di sant bu baax a baax ci bis bi ak li nga xam ne taxawaay nañ ko ci liggéey bi ñun ñëpp ñoo ngi sant yi àndal ci bi ñëpp ñoo nga xam ne ñu ngi fi nekk di liggéey ci njiital suñuy kilifa ah, nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci liggéey bi di góorgóorlu bu baax a baax a baax ci biir ak ci biti wax dëgg yàlla ñoo ngi sant soxna yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ak góor yàlla yi nga xam ne ñoo nekk ci mbana yi di togg ak itam ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci boobu ba léegi soo ba léegi ñi ci wàllu café gi ñi ñu ngi ci mbana yi ñi ñu ngi ci wàllu xol bi ku nekk li nga mën yaa ngi ci loolu laal mooy waañ wi nga xam ne moom moom lañ am ren ci mille décembre 2022 fii ci kër Babacoum waaye fii ci kër Serigne Cheikh waaye moom mu jiitu ñu di ko ñaanal suñu borom mu xaaree ko aljana te yàggal fi rakam ju ko fi wut muy Serigne Abdou Karim Cissé moom nga xam ne moo nekk xalifaab dëkk bi waaye rawatina kër gi nga xam ne moom moo fi nekk wut fi ab rakam wut fi mbooleem ay rakam ci biir dëkk bi noonu la ñu koy ñaanal itam jarbaatam bi nga xam ne moo topp ci moom di Serigne Moustapha Ndiaye nga xam ne moom it jarbaat la ci kër gi waaye àndoon ak mag ñi ànd bu yàgg ànd boo xam ne itam bu dëgër la nga xam ne liggéey na ko ci biir ànd ko ak ñoom ak njaboot gépp di tey nga mooy taawam bu góor mooy taawam bu jigéen di soxna Maymuna Siise moom wax dëgg yàlla jàmbaar lool ci waañ bi noonu la ñu wàccee nag jëm ci nga xam ne mooy góor ñi Ibrahima Cissé ba ci rakkam bi nga xam mooy Lamp Cissé ak ñëpp ñoo xam ne yaroon nañ ci biir kër gi te jàngee fi ku ci mel ni Mouhamed Cissé wala Lamine Gueye wala ki nga xam ne moo di Mor ñu ràññee leen lool ak Baye Saliou Diagne nga xam ne ñoo liggéey fii liggéey bu am solo wax dëgg yàlla ci waañ bii ni nga xam ne mooy waañu kër Serigne Cheikh doon liggéey boo xam ne bu rëy la boo xam ne bu rafet la itam ñu ngi sant yàlla bu baax ci liggéey bi ñoom ñëpp kenn ku nekk di def sa kémt lay kattan bayi dem ci loo xam ne sax doo ko mën waaye nag lépp ñu di sant yàlla bu baax a baax a baax te xam ne itam ngërëm lañ ci wut yàlla lañ ak moom barke lañ ci wut yàlla ak moom ndimbal lañ ci wut yàlla lañ daje ak moom ci darajaay Serigne Touba barke bi alxuraani karim darajaay Seydina Ahmad sallallahu asalaamaaleykum ñu ngi leen di nay da sant leen ziar si bis bi maanaam bis bi moo wax dëgg yàlla bis bu barkeel la ndax at mu jot bis bi bu ñëwee at mu jot dafay gën a yokk wax dëgg yàlla daay gën a yokk te aussi dëkk bi moom mel na melokaan bu nga xam ne waa macha allah maanaam yokkute bi moom ku nekk xam na ko rawatina si waañu nag waañu moom ñu fi nekk ñëpp farlu waañu ñi fi nekk ñoom ñoom ñoo farlu wax dëgg yàlla ndax euh, lam wax la borom bis bi waxoon rek muy teel te da bëri muy teel da bëri wax dëgg yàlla loolu ba tey itam ñu si moom danay teel danay bëri wax dëgg yàlla macha allah loolu daal laa xam ne moom amoon def nañ ko si bis bi wax dëgg te at mu jot ñu def ko si bis bi te loolu la ñuy continuer itam si bis bi wax dëgg yàlla waaw loolu daal la leen noonu il faut ñu sànni ko ci wasalaam. ñu leen nuyu bu baax di leen siyaar bu baax te di leen ndokkeel bu baax si bis bi. leen waxee ni ko sëñ Ousmane waxee rek noonu la demee bis bi nag nekk na bis boo xam ne bisub Serigne Touba la waaye ñun kër gi nga xam ne fi la ñu féetoo suñu waajur fi nekkoon moom daa bokkoon ci kër Alaaji Omar Ndaw waaye nag suñu borom daa dogal moom muy koo xam ne ku yoonu Serigne yu ñoroon la muy bis boo xam ne mbokkum taali bi moo ko fi doon jox ko suñu nijaay ma sëñee saa ñuy koo wax ma tërib Serigne Touba euh, sëñ Baabu mii nag daa bokk ak moom baay waaye bokkuñu woon aw yoon waaye sëñ Baabu ràññeeku ci bis bi nag munoon moom itam day jël fi boppam di ko defal ak njobootam di ko barkeloo ci xasida gi di wa kaanaaxan mu noon moom dana yóbbu loxoom fële waaye nag dana def loxoom ci biir këram ba ñi nga xam ne dañuy ñëw si bisu sëñ bi moom mu teel a sottal añ man leen berndeel ndax sëñ Tuubaa moom ku ne xam ne ay ganam berndeel rek la aajoo loolu moo taxoon muy taal ci këram waaye taal gi sax duut bëgg-bëggam waaye bisu sëñ Tuubaa moo doon loo xam ne bu agsee ñëpp a moo tax mu waañ fii ci këram doon wax ne moom 11h na añam yi sotti ñu mën koo xiwlo door a dem nag jàpp ci liggéey ba ñu di ko ñaanal moom itam suñu borom barkeel ko leeral kanam barkel gannaawam te njaboot gi mu fi bàyyi suñ borom taxaw leen bu baax ci góor ak jigéen waaw di sant itam nag sëñ Insa mi nga xam ne moo moo moo moo ji garab gi ndax ñun ci ay doom lañ bokk ko sant bu baax di ko ñaanal suñu borom defal ko ngërëma suñu Tuubaa ndax fàggu teef ñu bàyyil la waaye ñun tam yàlla nañ ko xam te mën koo téye te bu mu yàqu suñu loxo ci barkeb suñu Tuubaa ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di leen jaajëfalit bu baax a baax ñoo ngi leen di siyaar di leen sant yéen ñëpp ci liggéey bi te am kontaante lool ak sawarte ci li ñu laaj muy Cheikh Ibrahima Cissé digganteem ak magami ak rakkam yi seen relation bi ni mu meloon ak doxin wi loolu moom ko xam ci moom ku ko xam rek di ko xam lu mu néew néew di nga xam ne ak toppe moom may la ci amoon ak toppe moom ak toppe moom yàllaa ko ci defaloon tawféex yàlla dogaloon it mm, sañ esa mi mu ko boole loon ñoom ñaar ñu xamante woon lool euh, sëñ Ibrahima xamoon sëñ Esa lool sëñ Esa it xam ko ta xamante dafa am solo ci ak ànd xamante googu nag moo waraloon seen ànd meloon noonee hmm, ba tax na ànd ba yàggoon lool man na wax ne keroog bi leen yàlla boole ba ni leen yàlla di tàggalee ci saahiratan ànd mos mosta ñàkk rek tax mosta ñagas loola yi nag xamante ko waraloon ba noppi nag nangulante waaw xamante ak nangulante moo ko waraloon sëñ ma daraan bàkk sëñ Isa ci wëli ma dégg naa ko mu wax ko ba taay atam yu mujj daanaa dégg muy wax na jamono ji sëñ Isa peeboo di bàyyi xel waxam dam lu wax yàlla def ko ko xam na ko te noonee moo ko xamee noon la ko sëñ Isaa woon sëñ Isaa xam na ci sëñ Ibrahima loo xam ne dama ne waxu ko wala soo ko waxee nettali wuñ ko waaye xamoon na ko xam koo xam ne moom jéggi na dayo ndax moo ko juddule moo ko yar moo tax seenu ànd ci ci kër gi jombut laaj nañu ko waaye ku mel ni sëñ Moustapha mi toog dinañ ci xam dara ndax dund na ci lu bari ndax jamono naqari woon na dem nañ ba ne jamono neex na doonte neexul nag waaye dem nañ ba ne jamono neex na waaye naqari woon na boo déggee rek xamal ne kon démb gënoon a metti tey te boo fekk na la fi ñoom ñi ñu xam doxin noonu yi ma àndee woon ak magam rafet na njot lool ne noonu la àndee woon ki rakkam ndax moom ci boppam sëy Ibrahima ci boppam moom la yàlla bindee mu nitu yërmande euh, sànq ni lu dong bi wax léegi ni sëñ Tuubaa doon jàngalee tasawuf ci masaalik loolu rek moo doon jikkoom dafa nooyoon nepp lewetoon lool te dékku na lu bëree bari nag dékku na lu bari Cheikh Ibrahima li mu dékku ci coono ak lim ak li muñ loolu moom yéeme na lool loolu moom ñun ñi nekkoon ci daara ji dëkkoon ak moom lu suñu at néew néew néew xam nañ ci dara euh, noonee yàlla bindee ko nag ci mën a dékku lu ne ak man a muñ lu ne ndax jikko ji yàlla def ci moom loola taxoon mu mënoon a ànd ak ku ne kon moom wax ci moom ci ay magama diggante ma mag ay mag rakam dafa yomb jikkoom rek nga indi teg ko rek jikkoom moo taxoon mënoon a ànd ak ku ne ak melokaan bu la yàlla mën a bindee soo ñëwee mën a ànd ak moom looloo taxoon ni nag mu doon am ku ne maanaam lu sa xam-xam néew-néew lim daan am ci gan rek dala doon xamal kii mooy kan. ay ay ganam ñi ko daan fekk kër baabu rek loolu dèjà war na lay xamal jëmm ji mooy kan. ma ne mas na may wax ne ma ci làmmiñam ne ma kër baabu de mënuma fi bari tànk te it du ma fi nangoo toog it. laaju ma ko lan la waaye bi nga ko waxee ba nag moo ne ma moo ma wax ci làmmiñam ne ma yàlla daf maa boole ki nit ñu xam ma lool te ma lool te wóolu ma lool fu ma ma mën a nekk ci kaw dañ ma fa fekk te fii dama fee dama fee nekk gi samay mag te fii dama nekk gi samay mag ah kasa gis nga ko bali gis nga kilifa gi ni mel gis nga gis nga ko toll loolu jaral na ko mu ba ni muy wàccee liggéey mosu fee am ñeenti weer yu mat xanaa kilifa foofu la kon jikko ji moo meloon noonu waaye eh, ñu santee ko yàlla yi nag ci bam ko boolee ku mel ni sëñ Issa sëñ moom moom <laughs> ni ko yàlla def moom may la waaw moom ni ko yàlla def may la moom it mu mën a boot ku ne moom mu xajoo woon ku ne yàlla mayoon ko xol boo xam ne dafa xajoo woon ne ndax sëñ Issa ku ne xam na ne yaatu xol ak barke moo tax mu yilif fi hmm. moo taxi na yàlla yàlla tofalu ko rakk ji ko mën a bët yàlla ko woon rakk ji ko mën a bët ndax ni meloon moo tax ñi seen ànd lu neex a wax la kon ñu jox suñu Moustapha rek asalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi samil alim min sarri seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina wa nabiyina muhammadin sayyidil awwalin wal axirin wa ala alihi wa wa man ittabaahum bi ihsaan ilaa yawmi diin mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen nuyu baax di leen yii jiite ci nebi siyaar bi kilifay dëkk bi muy sunu xalifa a Cheikh Abdou Karim Cissé di sunu maam di sunu lépp di xalifa kër baabu Kumba foofu ñu jiitee sunu nuyu ak sunu siyaar di ko ñaan yàlla yàggal ko fi lool may ko wér may ko kattan ak man-man waaye bàyyi ko fi mu yegg ni mboole mu mi ànd ko mboole njaboot gi li ci teg sunu baay suruñ sëriñ Bassirou Cissé ibnu Cheikh Anza Cissé mu tëri sëriñ Touba ak sëriñ Mahamadou Amine ibnu Cheikh Ibrahima Cissé ak Cheikh Ibrahima Cissé ibnu Cheikh sëriñ Cheikh Cissé ak sunu baay Tafa Ndiaye ñëpp rek su limee juum di nuyu mboole waa dëkk bi kilifa yi di leen siyaar bu baax di leen ñaan yàlla yàggal leen fi lool sunu kanam ñu yàgg ñu jiite waaye ginnaaw loolu ñu nuyu gan yi di leen ndokkeel lu baax ci bis bi di rafetlu Euh, taxawaay bi depuis ñu jàpp bi si ba léegi kenn yendu kenn fanaanut ñëpp ngi ci sonn ci lool guddi ak bëccëg ñi ngi ci ngir bis bi taxaw ngir biir bi sotti kon wax nañu sant ci loolu. Euh, solo bis bi nag moom loolu moom ñëpp xam nañ ko duñ ci guddal mooy ndigal la joo xam ne ci sëñ Tuubaa la jógee ko si sëriñ Saliou Mbacké mu wàcc sañe saa mu ndigal lu soo xam ne ndigal sotti la. Euh, di bis boo xam ne ñu ngi ko defee Amérique sëñ Saaliw yëkkati ko jox ko sëñ sëriñ Xeesa Siise mu sëñ Touba mu doon liggéey bi mu liggéey sëñ Touba ba liggéey bi sotti sëñ Touba fay ko ko bis bi muy bis bu bis bis boo xam ne ñëpp ko war di bàyyi xel ndax boo xoolee tur rek daf ko firndeel wakkaanaa xan waaw wakkaanaa xan loolu ñu bari xam nañ li muy tekki kon bis la boo xam ne bisu dëgg la bis la boo xam ne ndimbal yàlla mu ngi ci bis bi képp koo xam ne jàpp na ko rek di ci def loo man ak loo manut ka nga denat yaa koy raw fa man di nekk kon ñu gën koo bàyyi xel te li ci jiitu mooy alxuraan ak xasida te ñu fexe ko teg ci alxuraan ak sunna loolu rek mooy solo bis bi waaye yeneen yëpp ay daanaka daf ci wàll si waaye liy solo bis bi dëgg-dëgg mooy njàng alxuraan mi Euh, ak njàngam xasida yi nga xam ne sunu maam Sëñ Saa daan na jënd xasida yu baree bari daal di ko tasaare ci nit ñi bu jub saan ñu ko jàng ku nekk def euh, ci ab lim su bis baa ñu daal di ko dajale ne nangam ñu am kon li ci am solo la ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. te comme ni nga wax ci ginnaaw bis bi bis la boo xam ne képp koo xam ne jàpp ko ci loo man ak loo manut fu la waaye gis ñee la ndax bëri na ñoo xam ne ñu fiy ñëw lañ ci yéenoon fas ko ca biñ demee sotti na ñu bëree bëree bëri. bu ñun lii lañ fi jóg kon ñu gën ko bàyyi xel te fexe ko sell mooy tax su borom nangu ko mbooleem jëfi rek bu ci sell amut su borom du ko nangu kon ñu ngi ci euh, góorgóorlu bu baax di ci jéggalu ci kàddu yi wax dëgg lot nañ ci lañ lañ ci bëgg leer lépp ndax euh, xale lañ sunu kilifa ñu ngi fi kon bu ñu joxee kàddu cër la boo xam ne rek du lu mën a ñàkk te day ndigal loo xam ne man su ko ñàkk jëfee de sëñ Salaan wax na muri ndigal fu muri euh, ndigal jógee rek ci topp ma jëf kon loolu mooy suñu kàddu ci lii ñu ngi tuub baax di jégal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñu ngi nuyu ñëpp ci bis bi ci taxawaay bi ci matee gi lépp ngir bokk yi bokki jullit yi yëpp ngi fi bokki réew mi yëpp a ngi fi xeet bi yëpp a ngi fi yëpp ngi fi kon lenn rek lañ ci am lu ñuy def mooy sant leen nim toll li nu mën a tollu rek nit ñee ko ko toll lu du jëmm yi du suñuy jëmm ñun daal amuñ lu ñu wax lenn rekk la ñu def mooy sant nit ñi te di leen jégglu ci coono yi eh, ci sunu ñàkk solo nag sunu xol sedd na lool mm, ci jëf ji xale yi itam seen jëf rafet na daayira bi ak mbokki réew mi ñépp taxaw nañ màggal la goo xam ne kuy dikk si mboom ngay indiwaale bu liggéey ba mu jeex nga dellu loolu de doy na sant yàlla moo tax ñun ñi ko moom mu jege ñu nañ xam ni ku ci liggéeyut da perte te wax wax wax wax rekk ku topp wax ji danga wax ba dugg ci kàmb te du la jëriñ dara yéen jàngkat yi de ayaay fay ci jëf ngeen koy ngeen ko teg waaye aayaay wax bañ fay la dee moom déggaguma ngeen wax ko kon nag nañ jëfi bis bi itam boroom ku ne xam na ne jëfkat la woon ku ne xam na ne daanu dox maslaa ci diggante moog sunu borom ci diggante mook sëriñ bi ku nekk ci yeneen yaa ci nekk waaye moom nekku ci woon bis bi it mu wàcc ko fi ñun ñi ko fi bàyyee nañ ci teg sunu bakkan ndax jàmbur yi teg nañ ci seeni bakkan kon ñun ñi ko moom buñ jëlee wax rek teg ci kanam te jëfu ñit boo ëllëgee jàmbur yi fayeeku ñu ñàkk yàlla suñ borom moom mënoo muus ba mu fay ki jëfut wàcc ki jëf Cheikh Ibra noon na mu ngay xaar bu baskil bi taxaw mu fay waxkat bi wàcc ki peese ci kaw kon yéen ndaw yi nga xam ni yéen ko saytu seen taxawaay bi rafet na waaye na ngeen ko fase yoon teg ko ci yoon te mottalee ko jëf mm, wax ba falu boo noppee daanu waaye jëf kum fal boo taxawee jëf garante la nañ jëf man de waxoon naa sëñ Daara Assane boo gisee duma ma du ma wax bëgguma feeñ fenn dama ko noon bàyyi leen ma bu ma kenn woote ci wax bàyyi leen ma ci jëf ji lu ma ci fekk ma jël bàyyi leen ma jëf ji dem leen ci boroom xam-xam yi yéen a am xam-xam yéen a xam lu ngeen di wax man xaama dara lu may wax jëf rek laa xam bàyyi leen ma ma jëf rek bu leen ma bu ma di jox wax ama lu ma wax ama dara lu ma wax bàyyi leen ma ci jëf ji ama lu ma wax ndax xaw ma dara jëf rek lañ ma xamal waaw xaw ma dara jëf rek lañ ma xamal bàyyi leen ma ci jëf ji sant naa leen nag gërëm naa leen waaye dem leen yéen ñi am xam-xam ngeen wax ci xam-xam wax ci yoon waaye man ngeen bàyyi ma may jëf ndax de gumba buy làmbatu rek laa te yoon rek laay wër bis bu ma ko dajee bu ngeen ma laajee ma wax jërë ngeen jëf ziyaare di di rafetlu seen liggéey comme comme ni ngeen ko waxee mooy di laaj tolluwaayu waañ waañ ni nga ko jisee leen nii rek liggéey bi moom comme ni ñu ko jisee rek ñun ñëpp ñu ngi ci ak pas-pas ak yéene jigéen ñi ñu ngi def li ñu war a def góor ñaa ngi def li ñu war a def ñu ngi maase ci liggéey bi kenn ku ne li nga xam ne mooy man manam mu ngi ci ci njiitul Baba jaañ ak ñi mu àndal togg yi ci njiital sëñ xaadim mi ak sëñ Noofar mi ñoom ñëpp kenn ku si ne ñu ngi ànd ci liggéey bi di ko def ni mu waree. di jaaraamal jigéen ñi ne seen taxawaay am nañu pas-pas trop seen liggéey rafet na seen pas-pas rafet na léegi bi nag dafa doon liggéey boo xam ne kenn ku xamoon li ci nekk maanaam doo xool sa morom ci dara liggéey la boo xam ne nii kiñ koy defal jar na ko la Serigne Touba daa wax ne ñi mu ma bor dama am pay mais moom it ñi muwul bor daa am pay. liggéey daal boo xam ne nii mu ngi nii ni ngeen ko gisee nii la góor ñi ak jigéen ñi ñëpp a ngi maase kenn ku nekk mu ngi liggéey ak pas-pas ak yéene ñu leen di ñaan kenn ku ne loo fi def ren balaa déwén yàlla defal la lu kawee sa si jëf jooju ñu leen ziar di leen bu laax jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ngir ñaanal ñu jàmm. di sant waa daayira bu baax a baax nag ndax daayira moom nii rek la war a doxee ci turu soxna yëpp di sant bu baax di gërëm di kontaan ni daayira bi di doxee rafet na lool waa macha allah ndax gis nga jigéen ñi am nañu posté bu baax si liggéey bi te ñu ngi ciy góorlu seen kéemtalaay kàttan kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax di ko rafetlu ndax nii lañ ko defee woon daaw waaye gis nga ren dañoo yokkaat posté fi bu baax. gis nga soxna yi macha allah ñoom ñëpp a dëgg liggéey rek ñàkk jëriñu ñi ciy sant yàlla nag. ba maanaam wakaana gi ni muy doxee tamit wax dëgg yàlla dañ ciy sant yàlla ndax góor ñi ñu ngi ñuy jàppale te gis nga daayira bi nii lépp góor ñee ko waral ndax ñoo ñu dëggal tànk ba tax li ñu mën ñu mën ko gis nga suñu oto si nu mu demee macha allah taxaw nañ ci bu baax a baax sant nañ ci yàlla di ñaan yàlla bés bi daal yàlla yokk ko. jëmale ñu kanam ba lu ñu mën reen bu déwénee ñu mën lu ko ëpp ci darajaay seexul xaddiim ñu ngi koy rafetlu bu baax jërë ngeen jëf. bisimilah rahmaani rahiim maa ngi nuyu waa daayira bi yëpp di leen ziar di leen ñaan jàmm bu baax di sant nag bu baax a baax di ñaan yàlla bis bi yàlla nañ koy yàgg a teewee ci barke Sëñ di ñaanal ñi ko jiite woon tey suñ borom moom leen ñu leen di ñaanal fa ñu nekk yàlla na leen gënal fi ñu boye ko ci barke sëñ Touba di wax daayira bi dañ gën a yokk rek ndax liggéey sëñ Touba moom amu tànk ginnaaw tànk kanam la am bis bi lu waay defal lu ci waay def sa bopp nga ko defal te bu ne dina gën a yokk ba nga yëg ko di leen wax nañ gën a góorgóorlu rek liggéey bi nañ ci def wasul suñu àq ba góor ñu jiite seen xol sedd ndax kenn ku nekk sa jabar indi nga ko pour mu liggéey nga xootil ko otees pour mu sol ngir mën a liggéeyal bis bi kon nag yéen ñëpp maa ngi ñaax liggéey bi lépp luñ ci def rek nañ ko xeeb nañ gën a yokk gën a fas gën xam ne liggéey bi luñ liggéey rek ñun ñoo ko moom suñu bopp la ñuy liggéeyal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen bu baax a baax di rafetul liggéey bi macha allah. di kontaan bu baax a baax wax dëgg yàlla ci liggéey bi nga xam ne dénk nañu ko te ñu koy teewal mbooloo mi yëpp muy di jaay lu mel ni wàllu carte barkeelu yeeg yi ni mel yëpp ngir liggéey bi gën a ñoŋ rek waaw ñu ngi ciy sant bu baax a baax di rafetlu liggéey bi yëpp. daanaka amul luñ ciy wax comme nam daan demee rek noonu lay demee maanaam ñu fàggu ay kayit jox na ko ñuy wër di ci def ay barkeelu waaye wax dëgg yàlla nu ñaa ngi wane seen yéene te bëri na ñoo xam ne sax bu ñu demee dañuy wanaat yañ yañ leen joxoon daaw kon gëm naa ne kon liggéey bi maanaam loolu am na ci solo lool ñuy sant bu baax waa daayira bi la. loo xam ne jàpp nañu dina yembal liggéey bi rek maanaam waa daayira bi ñu ngi si kon ñu leen sant di leen gërëm di sant waa dëkk bi yëpp di sant naal yi nga xamante ni am nañ ko ci dëkk bi yëpp yal na yàlla yombal ko barki Sidna Mohamed. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk taalibe yëpp di ziar ñëpp di wax ci turu daayira Touba Kana di ziyaaraat jëwrin yi nga xamante ne ñoo jiite liggéey bi di ci nuyu bu baax a baax jëwrin si Moussa Cissé di ko ñaanal yàllam ndax liggéey bi métti na métti na lool ndax boo gisee bis bi tey ni mu toll ak mbooloo mi ni ñu toll nga mën a taxaw gérer ñëpp di ko di di di ko doxal ni nga xamante ni noonu la noonu lay rafetee kon ñu ngi lay ziar bu wér. waaw di wax nag euh, mbokk taalibe yi affaire yi métti na méttiwul ndax ñun wàllum carte soutien la ñu jox ak carte barkeelu mën naa ne sax am na ñoo xamante ne ñoo ñu gën a mën liggéey bi waaye yàlla dafa dogal ni dañu ko jox rek pour ñu ko saytu di ko doxal. ñu ngi ciy def nag suñu kéemtalaay kattan di ci ziyaaraat ñëpp ñi nga xamante ni dugal nañ ci seen alal ñi nga xamante ni xam nañ bis bi tax xam xamuñu dëkk bi nu mu mel. mais am nañ yéene ba man mi nga xamante ni maa koy joxe su ma ko yéexee joxe sax ñoom ñoo may woo di ma ci soññ kon ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm ak sutura te may leen liñ ci bëgg ñoom ñoo ko xam yàlla na leen ko yàlla defal ñu ngi ziyaaraat ñëpp daal di jox ñëpp seen wàccuwaay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan fii ci sunu dëkku maam sunu dëkku sëriñ Cheikh Insa Cissé matérielu Serigne Touba ci bisam bu seel bu tedd bu mag bii ñuy amal at mu jot di tombeek le 24 décembre. ren mu tombé le 24 décembre 2022 fii ci Saloum Kër Baba Kumba ñuy sant mbokk yi bu baax a baax te di leen gërëm ci seen taxawaay ci pas-pas ak seen taxawaay ci yitte ak seen taxawaay ci bëgg liggéey bi mooy ñi nga xam ne ñoom lañu seqal liggéeyub daa aritu wakkaana xaqan bi yëpp muy góor jigéen mag ak ndaw ndax niñ ko waxoon ci bande annonce bi rek wax dëgg yàlla ni wuyusee wuyusee nañu nu kawe njortu lool ndax niñ ko wootee woon ci biir réew mi ak sax ba bitim réew ñëpp dagg nañu seen yitte dagg seen liggéey ñëw ngir teewee bis bi ci seen doole ci seen am-am ci seen alal ci seen passeef ak seen taxawaay kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci turu daayiratu Wakana Haqqan bi yëpp mooy ñi jugee Dakar ñi jugee ba te fii nii ci Saalum ñi jugee Touba ñi jugee fu gën a sori ba bitim réew ba ña jugee Gàmbi ak ñu jógee fépp ci biir ba Kaolack ak fépp foo xam ne nit jógee na fa ñëw surtout ci turu daayira bi ñu leen di sant bu baax a baax te di gërëm ci liggéey bi bu ko defee mbooloo mi nekk sama ginnaaw itam muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéeyum base bi nga xam ne fa la ñuy wàccee kaamil yi dafa durus li nga xam ne xañ na buñ ne bis bi tey moo ko moo moo tax bis bi muy durusum wakkaana xaq ni di sëñ Saliou Ndiaye ak sëñ Moutara mi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi gis nañ seen taxawaay ak seen passeef ak seen bëgg liggéey ak mboolem ñi ñu ko àndal yëpp ci seen taxawaay ci base bi ci njàng mi waaye di sant gi nga xam ne mooy Abdoulahi Ndiaye ànd seeg Mouhamed si te wax sànq ma a jël kàddu gi ci seen taxawaay nga xam ne bu ñëwee ba ci bis bi ni ñu koy defee wala bu bis bi jegesee carte soutien yi leen di jox ñu koy tas tasaare ci biir réew mi ak sax ba bitim réew ñi nga xam ne bokk nañ ak ñi nga xam ne bokkuñ waaye bëgg nañ lu baax ñoom it am ci taxawaay bu am solo ba ci ba ci dëkk bi carte barkeel yi nga xam ne dañ ko def ngir di ko ci mbooloo ngir mu gën a jëmmal liggéey bi ñoom gis nañ ci seen taxawaay kon ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm waaye di sant ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéeyu daayiratu Wakana Haqqan bi di jëwrin yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ak bitim réew bi nga xam ne mooy

baax di leen gërëm di membre daayira Wakkaan ñi féetoo fële ca Kaolack waaye di sant itam jëwriñ daayira Wakkaan Haqqan ñi nga xam ne suñuy mag leen ci daara ji waaye suñuy mag leen ci liggéey bi suñuy mag leen itam ci yoon wi ci ni ko mën a waxee muy jëwriñ ku ci mel Mori Gaas ak jëwriñ rakkam Serigne Mohamed Gaas gis nañ seen taxawaay ak seen Pastef soññi mbooloo mi ndax gis nañ seen woyof gis nañ seen Pastef ak seen taxawaay bu baax a baax ci liggéey bi wax dëgg yàlla ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ak mboolem ñeen nekk Touba ku ci mel ne sëñ Moustapha Touré ak mboolem ñu ñuy seqal liggéey di sant daal mbooleem daayira Wakkaan Haqqan yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi ak bitim réew di leen ñaanal jàmm di ñaan suñ borom ñu màggal ko ci jàmm mu jeex ci jàmm kenn ku nekk waat ci yite ci jàmm balaa ren di déwén lu waaye di wut yàlla na ko am lu waay lu soxla su fi waaye indi yàlla na ko suñ borom saafara barke Seexul Xadim nañ kontaante bu baax waaye duñ sant duñ di gërëm ñi nga xam ne tey bu liggéey bi daayira Wakana Haqqan yegg see fii ñoom ñooy tànk yi ñooy bët yi ñooy jëmm ji ñooy lépp muy ku ci mel ne jëwriñ Cheikh Moussa Cissé ak jëwriñ Serigne Bassirou Ndiaye waaye ak jëwriñ Ousseynou Cissé mi nga xam ne moo jiite membre daayira Wakana Haqqan yi nekk ci fi biir réew mi ñu nekk ci fii nga xam ne mooy Saloum muy Ousseynou Cissé ak jëwriñ euh, Serigne Modou Cissé di doom ji dëkk bi waaye itam jëwriñ Serigne Abdou Touré ak mboolem ñu ñu seqal liggéey bi fii ci Saloum ñu leen di sant di leen gërëm di teewal ñi nga xam ne xañ na bëggoon nañoo teew te yàlla dogal na teewuñu waaye ñu leen di teewaaleel di ñaan suñu borom boole ñu defal tawféex defal ñu taysiir ñu fekke ko ay ati bare bare bare على الذي به كما هي barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen jéggalu te di leen dalal jàmm di jiital ci nuyoo bi ak ñaan gi Cheikh Mouhamadul Muntaxa basiir Basir sunu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ba yéene ji mu am ci toolub maamam bi di seexuna ahmadul xadim sun boroom defal ko ci lu kawe njortu ak ci lislaam bi yépp rawatina ci réew mi di Sénégal di ci teg sëriñ Muhammadul Fadil moom Seex Abdul Hakim Mbakke di ko ñaanal fanu gudd lool wa ànd ak wér waaye siyaar boobu ak ñaan gi yëpp ñu ngi koy teg ci loxo rakkam bu tedd bi di Seex Abdul Lahad Mbakke moom Cheikh Abdoul Hakim ak mboolem waa kër gi yëpp di leen ñaanal falu gudd ak wér sunu sëriñ sunu kilifa sëriñ Adama Cissé di rakkam teewal ko fi ak mboolem ñi mu àndal ñu ngi koy ñaanal wu gudd lool o ànd ak wér waaye noonu lañ koy ñaanale sunu baay borom dëkk sëriñ Abdul Karim Cissé di xalifa maam baabu sise di ko ñaanal te di ko sàkku ci ñépp ñu ñaanal ko di ko yóbbante sëriñ bi nga xam ne moo fi teewal sëriñ Touba tey moo fi toog toogaayu sëriñ bi mu jottale ko sëriñ bi ñu ngi koy dagaan ñaan ci kilifaam gi nga xam ne moo ko nekkal fii ci liggéey bii mu ñaanal ko ak mboolem ay doomam ak jarbaatam ak mboolem taalibe yi ñu yàgg fi lool te wér ba fi mu yéene liggéey bii nga xam ne ay magam bàyyi nañ ko ci ay loxoom mu yóbbu ko fu kawe njortu ci barke Seexul Xadiim nga kàddu yi nag mën naa bañ a gudd comme ni mu daan demee rek ci ay tënk lay doon ndax liggéey bi mat na ba noppi ay kàddu cant rekk la yoo xam ne mi ngi jógee ci sunu mag sunu kilifa muy sëriñ Basirou Cissé moom sëriñ Insa Cissé matérielu sëriñ Touba ak rakkam ji di sëriñ Mahamadul Amin Cissé moom sa Ibrahima Cissé ak sëriñ Abdul Ahad Cissé moom sëriñ Insa ak seen mboolem seeni rakk ñuy jotal kàddu cant yoo xam ne ñu ngi ko ànd ak mboolem waa dëkk bi ci nañ ko daa defee ci dëkk yi daan teew yëpp suñ borom dogal na nemmeeku nañ ne ñëpp teew nañ waaye cant googu ba tey das koy wëyal ci sunu dëkk bii nga xam ne tey gannaaw yàlla lii mën nañoo wax ne fa la jóge walla ki nga xam ne ci moom lañ la ko sëñ Insa déggee ba topp ko ba jot ca ak kam ko jotee mu ngi soqe koo jaagaan kon waa jaagaan ñu ngi leen di nuyu di leen beral ak cant te ba bis bi tàmbalee ba léegi ñoo ngi ñoom ko ànd ñu jiital ci cant goog ak nuyoo bi Seydina Alioune Ciss Dramé Seydina Alioune Dramé ak mboolem ay rakkam ak mboolem ñañ njaboote di leen wax ne ñoo ngi sant bu baax ci ànd giñ ko ànd ak ñoom waaye di beral cant Serigne Ibrahima señaan yàlla dogal na jokkoo nañ depuis boobu ba léegi ci wàccaay ñu ngi ci jokkoo ba nga xam ne am nañ ci moom jokkoo yaatu mu féetee fële ci Amérique daaw teewoon na waaye ren foofee la ko fekk ba foofee la ko defee ku ne xam na ne njëlbeenu bis bi dañ ko daa ànd ak ñoom même suur waaye ni àdduna tëddee tax na mu soppandiku ba ñoom def nañ ko ci weer wi paase. loolu it ñu ngi ciy sant bu baax ci information yi ñu ci jot ak nañ ko jotee lépp ci moom la di sant itam waa Cànd Cissé ñoo leen di sant. di sant it waa njaañeen ku ndaw ñaari dëkk yooyu toujours buñ gisee ñu di leen jiital liggéey bi ba mu tàmbalee ba tey ñooy jëwriñ yi nekk ci kanam ba yàlla dogal tey waa daaira bii nga xam ne mooy daairatu Wakana Haqqan sosu ànd ko ak ñoom ñoom it di ay xale yoo xam ne ñii dañoo juddoo ci dëkk bi ñii nekk fi ay sët ñii nekk fi ay jarbaat ñii jàngee fi ñu ëlbatikuwaat takku def benn daaira boo xam ne tey gannaaw yàlla fu liggéey bi yegg mën nañ ni ñoom seen loxo nga ci biir loolu nag sëriñ Basiru nee na bu leen jàpp ne gisuñ ko gis nañ lépp ñu ngi leen ci ñaanal te di leen sant te di leen gërëm te di leen doole soññ bu baax a baax di sant itam waa njaañeen gu mag di sant waa jaagaan ba tey ak waa Kër Suley ci jiital ci cant gi ak ngërëm gi maire suñu mag suñu nijaay sëriñ Moustapha Cissé sopp xaadim teew na fi incha allah dina jot kàddu incha allah bu ko defee dañ ci ñëwaat ñoo ngi sant itam waa Lumen ci njiital sunu mag euh, sëriñ Omar Ndiaye ak mbooleem njaboot gi ñëpp ak waa Lumen yëpp ñoo ngi sant waa Kër Layen Soxna ak mboolem waa daayira ba ak ña nga xam ne ñoo dëkk ak ñoom te ñoom ñëpp ñu ànd ak ci bis bi ak ci liggéey bi di sant itam waa Kër Laayin Dóobaalin ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci teewaay bi di sant waa euh, waa Kër Xalimaan ni ñu ko waxee ñoom it dañuy dugg ci cant googu ñu beral cant ak njaañeen gu ndaw ñoom waa Kër Xalimaan ndax ku ne xam na ne baas bii depuis boobu ba léegi ñoom ñoo warloo loolu ci njiital sëriñ Mouhamadul basiir waaye ñu ciy fàttaliku suñu jàmbaar ja te di ko ñaanal te di sàkku ñëpp ñaanal ko muy Seydina Alin ñu gën koo xam ci Aliou Kumba Cissé ku ne xam na ne bis bi ca ña ko dooroon la ci liggéey bu mucc ayib kon nag ñoo ngi sàkk ñëpp ñaanal ko suñ borom xaare ko aljana te mbégte mii nga xam ne fekk nañu fii lépp fekk ci baamelam incha allah ak mboolem ñam fa nekkal ak beneen jàmbaar joo xam ne ci ñi daan jógee Gàmbi euh, mu bokkoon ci ñi daan taxawu liggéey bi yàlla dogal na fan yi mu dem sog ba yàlla dogal mu wuyu ji boromam ñoom it moom ñoo ngi sàkku ñëpp ñaanal ko bu ko defee ñu wëyal cant googu rek di sant itam waa Kër Maat ci njiital sëriñ Jim Caam gis nañ ko fi teew na ak mboolem ñu jógee Kër Maat yëpp ak tàmbale ko ci imaam ak ñu topp ci kawam ñëpp ak njaboot gi noonu lañ koy wéyalee bi tam di sant itam waa Joosoŋ ñoom it ci ñëwar waa waañ wi goney Joosoŋ yi surtout sëriñ Basiru nee na gis na seen taxawaay donte ka seen mbokk la gis na ni ngeen ko jàppee ci ak mbokk waaye ni ngeen ñëwee sotle ko ci bis bii ba ñëpp gis taar bi ba di ko sant gërëm nee na loolu seen loxo génnut ci mu ngi leen sant bu baax a baax di sant itam waa Cànd Caamen teew nañ fi jàpp nañ ci liggéey bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa kër ba këri ak waa kër Birane Khoradia ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne gis nañ seen teewaay ci lu wér wér di sant itam waa kër Baabu Kànni gis nañ seen teewaay ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant waa kër waa Ngayen Moussa Gaye ak waa Ngayen gu ndaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne gis nañ seen teewaay di sant waa kër Abdou Mata di leen beral ak cant bu wér wér ci njiital sëriñ Abdoulahi Diallo ak mbo imaam ak ustaas ñoom it faw ñu taxaw ci ñoom wax dëgg yàlla dañuy jóge ci gox bu sori daan def benn sareet dem ba yegg ci juróomi sareet dem ba léegi ñuy jël oto bay indiwaale dëkk ya leen wër loolu lépp ci taxawaayu Serigne keebaa Diallo ak taxawaayam bu rafet ak pas-pasam yitteem la ko defee yegg nañ ci ba lépp lu ñu war a xewloo dañ koy fàggu fi mu ne di ko indiwaale comme ñoom boole nañ seen bopp ci bis bi loolu it ñu ngi leen di xamal ne gis nañ ko yëg nañ ko di leen yóbbante ña nga xam ne teewoon nañ fi daaw ci kilifa yooye te ren yàlla dogal ñu wuutee ko ngeen teewal leen fi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sant itam waa Cilla kër Khalifa ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di sant bu baax ci sunu baay yooyee fa nekkee ak sunuy magi taalibe di leen xamal ne yëg nañ taxawaay bi ak yitte ji ak pas bi ndax xam nañ bu wér ne ñoo ñoom ñoo bokk tool bi te loolu wane nañ ko saa su ne dañ koy wane di sant itam waa kër kër mat Sën ak waa kër Maamu Sekk ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax am nañ taxawaay bu rëy buñ ci tax buñ ci daan taxaw waaye ren dafa rawati ndax ku ne xam na ne e, am na ay tutànk yu ñu fi yebal délégation bu xaw a am solo pour ñu ñëw jàpp ci kaamil ñu jógee foofa ca daara jooju nga xam ne Serigne si Cissé suñu mbokk suñu mag moo ko yor loolu it ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax di ko wax ne yëg nañ taxawaay bi gis nañ ko di sant itam waa Ngayen Moussa Gaye comme ni nga ko waxee waaye ñu ngi sant it waa sañc Passy ak waa pasi teeru ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne yëg nañ seen taxawaay ak seen pas-pas bu wér-wér waaye di sant waa Touba ak mboolem délégation bi fa jóge di leen ziar bu baax di leen baral ak cant di leen masawu coono di sant waa Njaareem ci njiital Serigne Mor Cissé moom Serigne Basirou Cissé di ko sant bu baax ndax wax dëgg yàlla at mu mu teew bokk ci ñi fi njëkk sax nag ànd ak ñun ci lépp teewal fi sëriñ Malick ak sëriñ Abdoulahat ak ñoom sëriñ Cheikh ak sëriñ abdu ak Abdoul ak Matar ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar di la ko yóbbante ak cant bu wér-wér di sant waa Sokone ñu ngi gis délégation bu ànd ak sidina sunu sunu sunu sunu sunu sunu jarbaat sunu mbokk sunu taalibe di taal di doon taalibi ci kër gi waaye di sunu sëriñ di sunu xarit di Serif dara mu ànd ak délégation bu am solo gis nañ leen ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di ko ziyaar baax di ko jox wàccuwaayam di sant itam waa Louga ci njiital sunu baay euh, sëriñ Ayib Alaaji Ayib sëy moom ak mboolem ñu jóge ak mboolem ñu jóge Louga ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa bi comme niñ ko waxee woon wax dëgg yàlla ñu ngi leen di beral cant mbooleem ñi teew ak ñi daan teew te yàlla dogal ren teewuñu ñoo ngi yëg seen taxawaay ak mbooleem liñ ci def ci bis bi yëg nañ ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm baax a baax di gàttal rek di wax ne mboolem dëkk boo xam ne déggoon dégguñu seen tur te teew fi ñoo ngi dog ngànt te di leen jéggalu di leen xam ne xëy na xel mooy fatt ba niñ ko bëggee des ko ma ne waaye suñu sañoon tour par tour la tudd yaakaar nañ ne man nga ko ndox mi ñëw na waaye soxla nañ courant bis bii ni mu toll bokk na ci bis yi gën a mag ci tund yi bépp bis bu fi taxaw màggal yi fi taxaw xam nañ na muy demee ak na ca président taxawee wala ni ngeen ci taxawee yenn am de politique yi ci wàllu taxawaay ak ndimbal loole it ñun mel na ni yeggaguñ ci waaye soxla nañ ko toll nañ ci tawat ko nag ñu ngi la koy tawat ci bépp taxawaay bu mën a doon waxtaan nañ ci waxtaan nañ ci mën ak yow xam nga ci lu bari waaye ñu fësalaat ko ci kanamu mbooloo mi nga gën a nga pour nga xam ne tolluwaay boobu lañ ci am mboolem dëkk yi nga xam ne dañuy am màggal wala ñuy am gàmm taxawaay ba nga xam ne nguur gi ñu ko fay taxaw ak ci fànn yu mën a doon loola jot na tey ñu am ko te ñu ngi koy dagaan ànd ko mboolem njabootu dëkk bi ndax yaakaar naa ne bu fekkente ne karta moo la fal gannaaw dogalub suñu borom mën nañu wax ne dëkk bi mel na ni population bi xeebu na ci gisin waaye lu bari la lu yaatu la macha allah. te loolu xam nga ci dara kon loolu ñu ngi la koy sas di la ko dénkaat pour jéego yi gën a gaaw xëy na bu jëlee dina leeral fañ ci toll incha allah loolu rek moo doon kàddu yi ñoo ngi sant tey gërëm lu ci mat rek ñu sante ko sunu borom lu ci manqué yi ñoo xam ne sunu di la. Serigne aadama Cissé ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu it Serigne Bassirou Cissé suñu mag di nuyu seen surga boobu ñuy wax Moustapha Ndiaye. ñu ngi koy nuyu di ko siyaare di nuyu itamit ñëpp ñoo xam ne ñu ngi fi teew di nuyu itamit sëñ Moor mu sëñ Basiiru Siise njaarim comme ni ko sëñ bi waxee rek ñu koy nuyu di ko siyaare di teew nag ci bis bi di sawar ci teew bi ndax yàgg nañ ci teew waaye tey teew bi ak teew bële am na wute tuuti rek luy wute bi mooy wakkaana àqan bi yàlla dogal na ba ko waa Amérique yi daan def ay millions yi wakkaana àqan boobu maa ngi doon seeraan tele centre Passy Ibrahima Señaan moo ma woo dañ jàng ay millions yi wakkaana àqan war ko tëj te xool nañ xool Baye Issa Cissé lañ gis daal jox ko ko mu tëj ko naa la ñu ci luñ soxla surtout ñun Modou Modou boo demee nga wax ko ko su ma sañoon nag mu ñëw waaj ñi ma koy woo maa ngi yore sama moto ma wàcc jaar fii ci moom wax ko la ma sëñ Ibrahima sañaan wax mu ne ma bu nangoon léegi léegi ci guddi gi ñu dem ñu téléphone ko rafetlu li mu def ma ne ko kon sëñ bi mën nañu bàyyi ba suba ca suba ga mun naa ne moom a njëkk pàcc moo woo Ibrahima Sagnane coupé mu wooñu mu waxtaan ak moom ñu commencé wakana aqan ñu koy def fii ci kër Babou Coumba defe naa ne muy wenkaat bii di ko def wax dëgg yàlla ñoom it ñu nekk ci ba nga xam ne wax dëgg yàlla suñu baay bu tedd bi ba Ibrahima Cissé moom it dugal ci loxoom lool ndax lu ci bëri xam naa ko ndax ndortal gi yu ci bëri ci ñun la xibaar bi daan jaar ñu koy jàllale ci waaye nag rëccu wuñ loolu ba ma amee ñu fi daan ñëw ñun comme ensemble di fi ñëw comme doom di fi ñëw comme taalibe comme nu ko sëñ Abdou Khadir waxee rek di jottali yàlla ku dara tawut dem ba nga xam ne bis bi lépp kam liñ fiy jàngee mun naa ne ci njaboot gi la bépp ku fi confrance luñ fi conférence kuy conférence ci njaboot gi la ñu ñu bokk ci ñu daan li mair bi ak dëkk bi yàlla di dogal ba nga xam ne mair ba nga xam ne ci la ñu daan yónni ñuy dem yàlla def muy ñun ndege ndaw ñëw nañ fi di sàkku ñaan ne ngeen jàpp lañu ñu jot ci commune bi ngeen ñaanal ñu yàlla dogal na jot nañ ci yàlla dogal na ñu jotaat ci honorable on conseil loolu yëpp seen ñaan la kon teewal nañ fi commune bi teewal nañ fii département bi on conseil bi département bi yëpp la élif commune bi maire bi commune bi la élif kon doomi Kër Baba Kumba moo élif mairie bi ci seen ñaan doomi Kër Baba Kumba bokk ne ñu élif département bi ci seen ñaan Moustapha Mbaye ànd na ak délégation ñi nga jëm sanc Aliou Ndiaye ku ne xam na ne dama daan jaar moom ñu ànd dem waaye comme ñooy maire bi te lu ko ji fii la dalee jàppale ñu ci saayir jàppale ñu ci baatin ba nga xam ne bis bi ñëw na dootuñ am soxla fenn lu dul fii pare loolu moo tax ñu teew fii di ñaanal suñu baay Abdou Karim yàlla yàggal ko fi lool te wére ko di ñaanal suñu baay Essa di ñaanal suñu baay seex di ñaanal suñu baay Ibrahima yàlla yokk seen leer yàlla ñu tas ñu ci seen barke. comme niñ ko waxee sëñ Abdou Khadir wax dëgg dëkk bi ñu ma jàppale lañ moom mënuma lim waaye dëkk bi yépp jàppale nañ ma ci saayir jàppale nañ ma ci baatin moo tax lépp wax de war nañu wax rek waaye lu ma denc sama xol bii yàlla na ma yàlla may doole ma génnee ko defe naa ne duñ làmb dara toog nañ nag incha allahu ren mooy suñu palamiyeer màggal ci kër Baabu Kumba déwén incha allah ñu ko dëgmal fas nañ yéene comme ni ñu ko waxee lépp lu ñuy defal màggal yi ndax benn bis ëpput bis bi ñu jaar faak dëkk bi jaar ci ci préfet jaar ci préfet dem ba ci gouverneur lépp lu ñuy def ci kër yi dina incha allah fas naa yéene ñu def ko fii ci beneen bay ñëw ñaan amul lu mënut. na nga ñun ñaanaloon ñu ngi leen ko yokk tàllal loxo wàllu courant bi wax dëgg mu ngi nii sama rakk la suñu jarbaat la du ñu réeroo ci dara muy Ousseynou Cissé muy moom muy ñeneen ak ñeneen fuñ ci toll rek wax nañ ko am nañ ci yaakaar bu baax a baax dimanche bii mooy ñetteeli euh, dimanche bii da ñëw mooy ñetteeli dimanche bañ mujj a toog ak président président lu mu ñu wax rafal nañu delloo rasuwaalaat ñeneen ma bokk ca mu ne def leen seen projet commune bu si ne def ñaari projet yu gën a mag jox ñu ko ñu liggéey ci léegi ma dellu bindaat pourant dellu bindaat yoon jox ko ministère moom it may ñu audience ñu waxtaanaat mu waxaat le président waxaat ku nekk xam ne ne ñu ngi ci pexem yoon dëkk yëpp bind nañ leen waaye dama bindaat pourant dama bindaat yoon jox ko jàpp naa ne daal entrepreneur yi si la liggéey bi da yéexee ndax entrepreneur buñ jox liggéey mu nekk fële pareegul bu paree dina ñëw fii su pareegut du ñëw fii ku la gën a jege ci dëkk te bosam pare te ngeen jege te yow sa entrepreneur pareegul it loo yàkkamti yàkkamti du ko laal ndax ku ci nekk sasi morom la kon ñu ñaan ngeen ñaanal ñu luñ bëgg suñu borom defal ñu ko kon insha allah lépp ci kanam lañ jëm ndax lu tax ñu ne ñu yow leen ñu ne commune bi lañ soxla ñu ne yéen bëgg yow bëgg ngay suñu maire ma ànd ca yàlla dogal meer googu am lañ bëgg ci man ak la ma bëgg maa ngi ñaan ngeen ñaanal suñu borom dimbalañ si ñu man ko def lii rek laa amoon lu may wax di sàkku rek ngeen baal ñu àq di leen baal àq di ñaan yàlla boole ñu baal. ci courant. ñaata yow laa taxaw ak yow ci courant. lu bari la lu bari la. waaye yàlla dogalut. waaye dogalut. def nañ fa ay wakkaan yu bari. def nañ fa ay wakkaan yu bari. gouverneur yëgut ko. gouverneur ko. def nañ fi yu bari. def nañ fi yu bari. dem naa ba ca moom. dem nga ba ca moom. dem naa ci préfet. dem nga ci préfet. dem ci sous préfet. dem ci sous préfet. dem ci commandant gendarmerie. dem ci commandant dem ci mairie. dem ci dama leen mag waaye mag yéen a bokk temps. dama leen mag waaye mën na ngeen ñëw bokk jamono. fépp fu ñoo defee CRD. fekk fépp fu ñuy defee CRD. dëkk ba ñooy booloo def ko. dëkk ba ñooy booloo def ko. ndax mas ngeen koo def. ndax mas ngeen koo def. fii masuñ koo def. fii masuñ koo def. yaakaar naa ne. yaakaar naa ne. ku ñu gën a xam fa ñoo jaar. ku ñu gën a xam fa ñuy jaar. nekkul fii. nekkul fii. ku ñu gën a bëgg fii. ku ñu gën a bëgg fii. nekkul fii. nekkul fii. ndax suñ bàyyi ko sanc. ndax suñ bàyyi ko sanc. te ñoo ci des. te ñoo ci des. Mhm. Moustapha sëñ Moustapha dikk na fi xaaju guddi dikk na fi xaaju guddi maa ngi moom rekk ko yëg maa ngi moom rekk ko yëg te ndox a taxoon te ndox a taxoon waaye nag su jotul waaye nag bu jotul jotul jotul boobu dugul mer boobu dugul mer fi mu ne nii fi ne nii ni mu doxee mer ni mu doxee mer ko ba hmm? du ma ko ba du ma ko ba du ma ko gëj du ma ko gëj hmm. dafa am nag loo xam ne. dafa am nag loo xam ne. dëkk ñoo def rabita. dëkk ñoo def rabita. bokk ko bokk ko. waaye kenn ku ne si yoonu bopp. waaye kenn ku ne si yoonu bopp. dara du sotti dara du sotti. mën naa naa wax loolu. man maa wax loolu man. man maa wax loolu moom si. nga xam man. Mhm. kenn gënu maa bëgg dëkk bi. kenn gënu koo bëgg dëkk bi. ndax soo bàyyi ko moom. ndax bàyyi moo sañ ci dëkk bi. kenn gënu ma ko bëgg. kenn gënu ko koo bëgg. soo bàyyi ko moom. ndax bàyyi moo sañ ci dëkk bi. dem. dem jox ko sëñ Issa. jox ko sëñ Issa. mu jox ma ko mu jox la ko. sëñ Ibrahima mag fuuf. sëñ sëñ Ibrahima moom mag. fuuf. mu jox ma ko. mu jox ma ko. lañ ca wax du ko wax. lañ ca wax du ko wax. waaye na la wóor ne. yaafu suma. yaafu suma. naxandoomu ma. naxandoomu ma. dofuma. dofuma. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah yow mbokk mi ba jàmm nga am ndax sikkuwul ñoo bokk maam gëj naa la gis bu yàgg naam ba sa xamel wàññeeku ñoo bokk lépp si néegu nday sin bokk baay jiitu na tey kasaaka xibla la sin jublukaay kon war na moos ñu sàmm ko war na ci man te war ci yow lu ne ci man moo ne ci yow te sikkiwul mbokk du ndaw mbir ndax mbir la moom du soppiku war na ci man te war ci yow lu ne ci man moo ne ci yow te sikkiwul mbokk du ndaw ndax mbir la moom du soppiku woom le du tax nga génn leen xam-xam du tax nga jéggi leen lenn ci yi boolewu leen kon rikk sàggane ko ala lu buur la ci ësal lu jiitu ñuy màgg ba tal wuutee ko am lu mat a jàll kon lu fi jar soppeeku juddu ci ak rafle gu tar màgg ba soli sagar nga dee ñu jàll ay sagar kon lu fi jar soppeeku juddu ci ak famille bu rëy te jëfuloo judd ci ak famille bu rëy judd ci ak rafle gu tar màgg ba tal soli sagar nga dee ñu jàll ay sagar kon lu fi jar wëlbatiku juddu ci ak famille bu rëy te jëfuloo ba mata roy di bàkku moos ta mata rey doo foy loolu jëfee su ko kon rikkuwaay nan futtiku lu mat am ñu yóotu ko lu mat a ba ñu séexlu ko wallaahi kon duñ soppiku kon rikkuwaay nan futtiku lu mat a am ñu yóotu ko lu mat a ba ñu séexlu ko wallaahi kon duñ soppiku soppante ci xol ya bu wér jàppante ci xel ya bu wér jub te juboo ci ak defar lu ñu jog wutali ko nam mbokk gi jiitu na tey waaye kum si ñun war na la tey jël ci aw lef dëkkee ko bay ndax len du jar booyal ko na mbokk gi jiitu na tey waaye kum si ñun war na la tey jël ci aw lef dëkkee ko bay ndax len du jar booyal ko kay mag taxaw palaasu mag fees barabam te dëkke ñag ngir xam ne buur yàllaa ngi ne kullukum si ñoon mu saytu ko yar sa njaboot gi ñëpp ndax bu ëllëgee ñu neex a cax ràññale leen dëgg ki ndax amaana kon duñu sànku yar leen ci ak diina ji wér ngir bu ñu doon ñu neex a for ndax jamono ju bëri wor ama ab sàmmkat du bàyyi bàyyiku ndax jamono ju tooy ni tey tool yi fi booy ba jara bay est ce que jotul ñun ñëpp tey futteeku ngir wolli ji ko ndax tool bu maam ji ba mu sax nga toog di xool ba mun na sax jar na di daw bay waaj a fëx ngir li mel nga sori ko mu mujjee pusa mu daal di réer ngir jamonoog mbon gii di réer jar na sëngéem ak dëkke liir sin jëfi maam ngir wuutu ko dëkk ci roy seen jëf ya ngir liñ son na jaf liñ son na def si ñun du far liñ son na def si ñun du far jub te juboo ñëpp la war bu kenn naan manuma ko góorgóorlu mooy lii maye ndam si bépp jëf yow aji gëm yàlla ak yeneen ak tànnefem ni sëñ Xasan ma tudd ko ndax doy na sëkk ak wéeruwaay tamate woon ak royuwaay ndax àddunaam lépp la jaay allahu buur ba fekki ko judd ci ak famille bu rëy taxul ko doo taxul ko woon doon nit ku rëy jub la nga yoon dëkkee ca xëy ba fan wa jeex te waaju ko ndax jàngi na sabam jotee wuuf aliwaam ba xëy matee tar tarbiya nit ba ñu matee seexu aalim yu ràññiku jaar na ci ay daar yu fës lu jiitu mii dawali fas musal na aw ñoñam ci xas cik rafetal cik farlu te la ràññiku ay way juróom yar nanu ko jàngal ko loolu nit bind ko si téere ndax xel daju ko gox ya mu jaar sikkanu ko yitt gu tar gim ràngo woon fësal na ko fi mu dëkkee woon jamono jamono ak fépp fu demoon ngir sàkku xam bañ yeewi ko mu del si mu del si doon ku njabote ci yar ngir bañ dëngte ba tax ñoñam am kóolute ci seeni doom ba yët ko ko mu def ci lool mu def ci mu de mu di ci def kem kàttanam guddeeg bëccëg ngir ñëpp xam si jamono ju jafe am ngër mànden di toqoolu ko ndax daawu ca xaar wax ju neex xaarul te woon dundin wu neex ngir mate woon ngir mattali gëm-gëmu seex baayam ba seex yàkkaliku ndax ndax daara ja baayam ja seex taxawaloon ngir xol bu jeex ci yàlla ak famille bi jeex cig ñàkk a xam ba tële ko yàlla na leen bur dolli ngërëm ndax seeni cër jar na xemam ndax seen dund jar na xemam tasaare ko ba ñëpp xam seen dund gi nee na seen dund kenn nee na ko ndax seeni jëf war na la tey ndax seeni jëf waral na tey famille bi doon ak royuwaay tey foo fi dem ci si ab jotaay buñ jiite ngir rafet jikko ndax seen i jëf waral na tey famille bi doon ay royuwaay ndax foo fi dem gis ab jotaay buñ jiite ngir rafet ko jarul di lim ma su ko junjula junjal li des te yéene ko ngir seeni jëf nga sàmm ko ba ku gis tàqamtiku dëkk ci wax seen jëf ya woon te nekkuloo sa lañ ne woon yellul gënul ci lin ba woon ci ñooñ ngi ndax dundalu ko li war ci ñun te war ci man lu war ci yéen te war ci man te doon dimbal te li gën fa yàlla ak fii la ci ñun tasaa saa su ne muy yokku muy jéem a ne ca lañ ne woon ndéem doo ca man lañ ci manoon boo yokkulit ba fi la woon li bon moyul tasaare ko saa xam soo xam li wut fexe ba am boo xamulit fexe boo amulit fexe ba am diina ji wér ci aji gëm yàlla ak yeneen ba fekki ko te doon ko am njëriñ fa ñoom si ñaan ndaxam du doy fa ñoom tey nemmeeku doomi boppam ci seeni mbir naam fayu ko ku bëgg nit bëgg léppam ku sopp nit aw ci bëggam ku yéene nit moytu mbañam wallaahi moos xalamtu ko ku bëgg nit bëgg léppam ku sopp nit aw ci bëggam ku yéene nit moytu mbañam wallaahi mos xalamtu ko bu fi newoon ma jox ko lii te njabootam jotuñ sa lii di neex a gëm donte si lii taxul mu wom ba mate ko ndax sikkiwul miskin la woon si njabootam duniyaa si poñetum duniyaa ba woon te mos la xëy yokkati ñun mbaa muy xamal di fayiku ba mu wàññi njël mbaa bis mu neex ba mu mooy ndigal ci kilifaam yam dajaleel ba kii fi des seede na ko monsieur Abdou Karim ay kilifaam mosuñu xam akuk mbañam ci seeni gëm ngir bëgg a am seenu ngërëm dundam gi lépp toppe na ko ndax mos la gis ak dara jaam diir bu mu nekk ay kilifaam ba mawti ba mawti xëy dëkkal dundam wallaahi moo sosuma ko ndax dund naag ñoom ba matal dund ak ñun ba xëy matal yàlla na ko buur nangul yàlla na ko buur yàlla nangul bépp jëfam te yéege ko te def ñun akuk woyof musal nu ci yéem suñu jëf musal nu ci taayal si jëf ba ku xam ciipatiku te xër nu ci jikkoy xasan ci yitte jaag mbaax gu sakkan amin bi jaay xasan bi sëñ xasan ngir tënk fii te yéene ko taxawlu naa fii ci sëriñ daara xasan ndax mu jëriñ doon fàttali ci maag sëriñ moodu taawam bi wuutu ko jasaaka laa ñu si sin bis bi ngir jëf lañu si ma njakke waa tund pas yi région Fatick ba jéggi ko jaagaan barke ak commune am Diossane ak commune dem ba ñeseen ak commune dem ba bawal te mujj ko alhamdulilah rabbil alamin naka noonu euh, di nuyu Cheikh Mouhamadul Amin Cissé moom Cheikh Ibrahim di ko siyaara bu baax moom ak njabootam gépp leen ñaanal tawfeex ak taysiir nga saa di nuyu suñu sëriñ Seex Adama Cissé joge ba daaru Kër Mor Xoroja teewal fii euh, kilifaam sëriñ Aliou Cissé di ko siyaare bu baax a baax di ko ndokkeel di nuyu bokki taalibe fi teew yëpp di leen siyaare bu baax euh, di wax ne gannaaw bu ñu santee yàlla kàddu yu gàtt lañu fi nar a rotal rek ci lu néew lu ñu xam rek ci kii nga xam ne moom la ñu tuddee bis bi di Cheikh Ibrahim Cissé kàddu yu gàtt lay doon ci biir lu néew li ñu xam ci moom sëriñ bi nag waxtaanee ko moom waaw Cheikh Abdou ah, ah, Khadir mu ngi fàttali nee na eh, xaritam mbokkam eh, Serigne Modou ñas ku ko jege lool xam naa li wolof yi wax jege kiiraay la looloo tax mu fàtte ko waaye ñun ñëpp xam nañ ni mu demee ak moom nee na mu ngi koy nuyu di ko siyaare di ko sant bu baax a baax a baax ndax moom depuis ci suba ba léegi moo ngi fi moom itam te ci lépp lañu àndee noonu mu koy gërëm bu baax di ko sant ñuy wax ne waxtaan wi dafa mel ni da da dañoo dañoo manqué ci présentation bi sax ndax dafa mel ni dañoo waroon wax ne am nañ thème ci jotaay bi te mooy ànd ci ay diggante ay ay nit yu ànd comme diggante sëñ Ibrahima ak kilifaam gu baax googu mu nekkaloon di sëñ Issa Cissé seen ànd ba rafet ga loolu lañ tuddee lañ lañ jël def ko tem nga xam ne sëñ Moustapha ci la war waxtaan ak sañ usmaan loolu dafa baaxoon lool ñu leeral ko balaa ñuy dem léegi nag euh, kàddu yi ñu ciy tàbbal loola tuuti rek lañ ci laal ñun waaye dañ koy bàyyi ñi nga xam ne ñoom lañ ko sédd waaye faw diggante sëñ Ibrahima ak sëñ Essa moom kenn mënulu waxtaanee kenn ci moromam ci tuddoo moroomam waaye dañuy njëkkee rek ci ki nga xam ne mooy sëñ Ibrahima nga xam ne moom lañ dara jaalee bis bi tey ñuy wax ne moom neexul waxtaanee ci lu dul ñaari tomb yii muy xam-xam ak jikko xam-xam ak jikko moo doon mbiram moo xam ne léppam moom la te it ku ne xam na ne boroom xam-xam la woon bu mag a mag a mag mag te xam-xam borom xam-xam suñu borom moo ko njëkk a teddal moo ko njëkk màggal ndax yàlla wax na ci alquran ne moom de moom rekk moo seede ne moom mooy yàlla ak kan ak malaayika yi ak kan ak boroom xam-xam yi yàlla nee na moom seede na ne ñoom moom ak ñaar rekk ñoo seede ne moom mooy yàlla muy moom ak malaayika yi ak boroom xam-xam yi sahidallaahu annahu laa ilaha illa wa ulul ilmi loolu tiraanga tedd nga ju rëy la ci boroom xam-xam daraja ju rëy la ci boroom xam-xam kon xam-xam ak boroom xam-xam suñ borom moo ko màggal mu dellu waxaat ne innama yaxsallaahu min ibadihi l ulama yëg leen ne kat kenn ragalul yàlla ci jaamam ñi ku kudul boroom xam-xam kenn ragalul yàlla kenn du ragal yàlla ci jaami yàlla yi kudul boroom xam-xam loolu tiraanga la ngëneel lu rëy la loo xam ne jagleel na jagleel na ko boroom xam-xam mu dellu waxaat tegtale alquran wala ban leer lay tegtale waaye alquran la mën nañ ko tuddee alquran bal huwa ayatun bayyinatun fi sudori lasina utu utul ilm nee na alquran ay aaya la yu leer yoo xam ne ci dënn ñi yàlla jox xam-xam rekk la nekk kon xam-xam yàlla moo ko teddal boroom xam-xam yàlla moo ko teddal moo ko jox ngëneel ah, loolu nag moo tax sëriñ Ibrahima neex a waxtaane waaye waxtaanee ko mënul génn xam-xam ak jikko xam-xam ak jikko tamit suñ ko waxee mun nañ wax ne xam-xam ak jëfee mun nañ wax ne xam-xam ak jëfee euh, mun nañ wax ne xam-xam ak jaamu yàlla ñaari tomb yooyu tomb boobu mun na firi loolu lépp waaye euh, loolu moo doon melokaanam xam-xam nag suñ koy tudd ci moom xam-xam boroom xam-xam yi dañ ko divisé woon muy deux Sëñ Tuubaa jàngale ko al ilmu indal ulama yanqasim li zahirin wa batini sirran kutim xam-xam ñaar la nee na boroom xam-xam yi dañ ko séddale muy ñaar muy xam-xamu zahir ak xam-xamu batin mooy lan xam-xamu sariha ak xam-xamu xaqiqa muy tawhid yàlla séddu ko ñaar yëpp ñëpp xam ko euh, ku ne xam na ne ku bari woon xam-xam la ci wàllu zahir ba ñëpp toppee ko ay magam ñoo ko yebaloon mu dem jàngi ñëw bokk ci ñii raw ci réew mi loolu ku ne xam na ko ndax euh, da dañ ci am seere yoo xam ne ndax li wolof yi wax wax day tunkum seere dëgg ndax euh, am aw njàngam yaatu na ci wàllu sariha yaatu na ci jaaruwaay waaye kiñ ko gën a xamee mooy Serigne Daara Tidiane Dieng ci Sorom yal na yàlla dolli ta dëgëraayam yal na ko fi yàlla yàggal euh, réew mi yëpp xam nañ ne ci ñi fi ki raw ci ci ki ci ñi raw ci réew mi la bokk moom sëñ Daara Tidiane Dia te ku sell la ci xam-xam lool ku sell xam-xam rafet xam-xam lool te sell lool nag loolu moom ku xam rek xam nga ko ci moom njàngam li ci ëpp ci sëriñ Daara Tidiane moomu la ko defee ci moom la tëjee ñibbisi fii dellusiwaat fii kër Baabu Kumba te Serigne Daara man dégg naa mu seere ne Ibrahima de maa ko doon jàngal waaye dem na ba xam lu ma xamul kon loolu seere la bu wér ci ne boroom xam-xam la ci wàllu saayir man mii di wax lu ma xam ci sariya moo ma ko jàngal kon loolu tegtal la ci ne moom boroom xam-xam la ci ñi nga xam ne dañoo nekk xale xay na ñi mag ñoom ñëpp xam nañ ko loolu mooy xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xamu téere xam-xam bi nga xam ne nag nekkul xam-xamu téere te duñ ko jàngee ci téere te Serigne Touba jàngale ko boobu tamit làqoon na ko ba am ci seere ci ki nga xam ne moom la ko jëlee woon ci moom muy xam-xamu baatin muy xam-xamu tawxiid mooy xam-xamu mahrifatu billah xam-xam boobu diggam ak Cheikh Moussa bi mu koy jëlee ci Cheikh Moussa sax Cheikh musaa daa ñëw nuyu ko am yoon ci dëkk yooyu ci gox boobu waññeeku séen ko mu toog ca mbedd ma mu dem nuyu ko ba mu ko nuyoo jox ko loxo mu ne ko kan mu ne Ibrahima mu ne ko Ibrahima dégg nga ma mu ne ko waaw mu ne ko dëggal nga ma mu ne ko dëggal naa la booba wootee ko mu bàyyi loxo ba ne ko loolu nu mën a nekkee mu xamal ko ne ko xam-xam bi doon naa ko sàkku dëkk bu ma mos a nekk muy mbuur ci benn jëmm waaye yàlla dogal jotuma ca woon mu ne ko ak sa ca noona la jokkoo ci see Cheikh Moussa ba ci la jëlee maarifatu billaahi ba di ko woote xam foofu tamit Cheikh Moussa mi nga xam ne moo ko ko jox seere na ko ci seere yu wóor yoo xam ne lu wér la ndax Cheikh Moussa toog na wax njoboot gi nga xam ne mbooloo jaam yàlla ñi nga xam ne ñoo ngi ñëw ci moom tey joge ci gox bii mu ne bu kenn rombati Ibrahima di ñëw ci man. bu kenn rombati Ibrahima di ñëw ci man loolu la wax bis mu toog ak moom di waxtaan ba mu yàgg mu ne ko Ibrahima soxla naa sa ñaan ba keroog sax bisu màggal la woon Cheikh Ibrahima dafa génn ci mbooloo mi ci baas bi joxe fa ay dog. ne nañ nañ ko ko sarax pour mu ñaanalee ko sëriñ bi ndax boobu moom yaakaar na ne yaram mu mag wi rek a tax mu ko koy wax waaye nee na bi mu demee ba gis bis mu wàcc liggéey nag ci kanamam ñu ñu ñu ñu ñu jox ko ne ko taxawee ko la ne waaw kay kon lii la ma sëriñ bi doon wax waaye ndeke ñaan lu doon ci ci tawat xam-xam boobu nag xam-xam bu tumuranke la lool sax waaye sëriñ bi moom jàngale na ci lu yaatoo yaatoo yaat parce que xam-xam aw njàng dañuy wax ne sëriñ ñett la kila jàngal araf ki jàngal firi ak ki la ñett rek la ki la jàngal araf ak jàngal firi ak ki la jàngal mahrifatu billah ki la ko wan lu tumuranke la nag moo tax sëriñ Tuubaa ba mu wax bi mu ñëwee jàngale na ci lu bari lu yaatoo yaatu ci masaalikul jinaan boo demee ci buntu siikar buntu boobu sax d'ailleurs man man mii ci la ma sëriñ bi jaaree ba dugal ma ci maarifatu billaay ndax bi euh, euh, bi ma nekkee fii di jàng ci moom xam-xam am benn at ma amee loxo bu métti loxo bi bënn loxo léeg day bënna ba pare yéex a wér yabatoo liggéey ci laa ko tàgg na ko dama bëgg dem noori ba mu ba mu bàyyi ma ma dem noori Touba dama daan noor nag di ñibbisi si def naa fa ñetti noor bi ma nooree ba ñibbisi ci biir semaine boobu mu laaj ma ndax jàng nga masalik ma ne ko dal naa ko de wante jeexagul mu ne ma jàng nga buntu siikar ma ne ko waaw mu ne ma demal indi ko ma indi téere bi mu ne ma génneel buntu siikar ma génne mu ne ma firil ma ko ma firi ba mu daanu mu ne ma ah dégg nga ko déggu xam de waaye dem leen wuti fa lii la ma wax dégg nga ko dégguk am waaye dem leen wuti maarifa mu mel ni nag daa am luñ ma jam moo toog ñaari fan ñëw ne ko maarifa laa bëgg mu ne ma dalay yàqal jàng demal jàng ma topp ko ba une semaine ñaari fan yu ma jël ñëwaat laaj ko ko mu door ma koo nangu foofu la ma jaare waaye boo demee foofu ci bunt boobu mu ma doon jàngalee noonu Serigne Touba mu ngi fay wax ci parce que fa moom képp ku la koy jox rek ci baatu laa ilaaha illallaah la la ko mën a jox sëñ bi di wax foofu naan wa in takun mubtadi an fa naf yu awlaa maha tahsimi yaa uqay maanaam su fekkee da nga bëgg tarbiya waa bëgg am sëriñ da nga bëgg am sëriñ léegi sëriñ bi laa ilaha illallah la lay jox ci ngay tàmbalee neena na laa ilaha moo lay yóbbu ci yàlla mu dem nag ba ne waaye baatu laa ilaha illallah maanaam secret baatu laa ilaha illallah moom nit du ko bind ci téere sëriñ Tuubaa moo wax lool kon loolu moo waral wuti sëriñ secret baatu laay laay illallah sëriñ Tuubaa nee kenn du ko bind ci téere asraaruhu wa kasfuna asrarahu laysa yaliq huna li kawni sirrihi bahran hamir nee na mbootum baatu laa ilaaha illallaah duñ ko bind ci téere kon kenn du ko jàng lan moo kon kon kon kon kon loolu moo waral bi nit ki jàngee araf jàng firi baat ne ko fa ñukk ku tàllal nit loxo ne ko aslamtu nafsi loola leer googa secret booba moo waral loolu donte ñu baree koy def te xamuñu lan la. moo tax lu ñu war di waxtaanee la parce que Sénégal yëpp dañuy dund tasawuf ñëpp tasawuf la ñuy dund waaye sëriñ bi dafa wax ne tasawuf duñ ko jàng ci téere donte ñu ngi ko fiy jàngale woo demee ñu lay jàngal ay tawhid ndax waaye sëriñ waa waxoon ne wa baadu fa tawhidu lil xismayni mun xasimun fa saada tawhidayni fa awalun takallumun waaw nee na tawhid ñaar la xam nga nee na fee dañoo séddale xam-xam muy ñaar zaahir ak baatin mu ñëw ci baatin bi ne dañ ko séddale at muy ñaar mu ne benn bi mooy wax jàngal la wax euh, tur yàlla yi jàngal la ko ba mu jeex mu ne waaye xamal la ko mooy baatin bi nee boobu na xaasiya la moo tax bariwul fa awalun takalumun wa saani taxarufun laa tunkiran bayaan mu ne asraaru mu ne mu ne wa kasfuna asraarahu laysa yaliqu naa li kaw ni bahri sirrihi baran xam ya géej gu xóot la kenn du ko bind ci kayit looloo waral uti sëriñ wax na ko ca kanam ah. mu daal di wax ne wa man yurit kas fa la si tadda manaa yu taliqu dun yaa talaxan bay naa ku ko bëgg da nga fase àdduna mooy li suñ mag ñi daan def dégg sëñ Touba ub sa kër wala nga wala nga tas ko soli daal di ko wër loolu lay loolu lay jar mu ne asraaruhu axfa min an tub taba fi saxifatin li kulli si tasaru nee na kenn du ko bind ci kayit yi nga ne ko nuñ koy amee mu ne bal innaha mu ne innaha tunaalu bil maqaabala wa bil musaafaati laal mu jaada nee na ci yootlante lañu koy amee mooy mooy mooy sayxu tarbiya daa ne bal innaha tunaalu bi tasliimi kon sëñ Tuubaa def amul lu mu jàngalewut ci lislaam xanaa lu ñu gëm rek bañ caa jublu waaye lépp la jàngale kon sëñ Ibrahima mooy kooku nga xam ne dafa dajale xam-xam yi parce que borom xam-xam yi dañoo wax ne Euh, ku boolewul fiq ak tasawuf mënoo jiite mbooloo wa man tafaqa bila tasawuf fa soo tafas fi faade fi wa man fa soo faade fa soo tasanduqin mu daal ne wa man euh, wa man jamaa baynahuma huwa wuqaloo an yutbaha ki ki nga xam ne nag boole na ñaar yooyu kooku lañ war a topp kon moo tax ma ne sëñ Ibrahima waxtaanee ko lu am solo la ndax euh, yàlla dafa def mu dajale li nga xam ne mooy njëriñu jaam yi ñëpp ba yeeyoo yeeyoo topp loola mu dajale woon ba jaam ñi topp ko ku ko mos a dajale yëkkati nga sa loxo woote jëmale nit ñi ci yàlla sëñ Tuubaa wax na ko bis amara ni rabbi bi an usarriha bi anna nii malaasun wa himan wa mafsaw fa man alaadal xayra fi kiltay daaree ni fa li lus bi loola tolluwaay la woon boo xam ne wo wo womatoon na ko mu woo jaam yàlla yi jëmale leen ci yàlla kon seex bi xam-xamam lu yaatu woon la ba tax na euh, li góor yàlla yi li yàlla séddale woon góoram yi amoon na ci ba tax na Euh, mu mu mu doon liggéey seen liggéey ñoom ñëpp. gannaaw loola li nga xam ne ma ma barkeelu ci digganteem ak sëriñ bi muy sëriñ Aïssa ñoom ñaar dañ doon ñaar ñoo xam ne kenn ki euh, kenn mënu ci manqué sa morom kenn mënu ci manqué sa morom ndax kii aalim la boo xam ne dafay tegtal jaam ñi li yonent bi woote kii mujaahid la boo xam ne jaasim la yor képp ku lànk mu xeex ak yow ñoom ñaar loolu lañu woon kii aalim la boo xam ne dafay tegtal jaam ñi yoon yi jëm ci yàlla li yónnent bi indi mu leeralal leen ko kii nag jaasi la yoroon joo xam ne ku bañ mu dale mu dajeeg yow ñaar ñii lañu woon nii lañu àndee woon tamit nag àndub lislaam àndub soppante àndub bëggante sëñ Ibrahima sëñ Issa da koo bëggoon lool da koo bëggoon lool waaye xam ko lool nag te nangul ko li li mu doon ak euh, nangul ko lool li mu doon sëñ Ibrahima itam am coxe lool ci sëñ tawatam ji ji ji ji ji atam yu mujj yi bi mu ko indee Dakar man maa teew mu ne docteur bi kii sama kilifa la dafa tawat nag waaye tawat ji bul foog ne mënuma koo faj lépp lu ci war rek am naa ko dama koo soxla damaa bëgg mu wér dama koo soxla damaa bëgg mu wér tawatam ji lépp lu ci war rek bul foog ne aw ma ko mën naa ko lu ci war rek wax ma ko ñu def ko ci loolu cofeel la noonu la àndee woon ba moo gis jur lii ma tëjee rek histoire benn taarix taarix mooy bis bii tey ñëpp di teew réew mi yëpp teg ko foo xam ne kenn mësu fa teg benn bis seen ànd bu rafet rek moo ko waral sëñ Ibrahima am na bis ñetti yoon sëñ sëñ Saat gàntal ko ya ñaar yi moo ko defal boppam mu gàntal ko benn ba aw ñooñam ñoo ko ko sosal mu gàntal ko lii kii doon tàmbalee nettali léegi ci ci Ibrahima Sañaan Dakar la dem woo Moustapha Touré Moustapha Dramé moom Alaaji Seex jàmmante moom laaj ko Abdou Sañaan mu ne ko mu ngi fi mu ne ko wax ko mu woo ma Ibou Sañaan woo ko ñu waxtaan ba yegg ci màggal gii bu ñu yeggee ci màggal gii nag ci la ko bi mu ko nettalee la ko sëñ Ibrahima sëñ sëñ Esaani ko may ma ko ma koy ma koy def mu ne ko sañu maa jox ndigal sama kilifa sañu maa jox ndigal sama kilifa muy wax ca moom ba Ibrahima Sañaan gàntal ko mu ne ko kon jox naa la ndigal nga jox ma ndigal ma koy def sa kilifa laa mënoo ma jox ndigal jox naa la ndigal nga jox ma ndigal ma ko koy def ma koy def mu ne ko kon jox naa la ndigal ci sa ndigal ngay màggal màggal gi Ibrahima Sagnane nee na ba ko sëñ bi waxee loolu ba mu ba mu waxee loolu sëñ bi sëñ bi doo ko ne kon dafa sant yàlla ñetti yoon daa ne ko kon de Ibrahima am na bis kon de Ibrahima am na bis daal ne ko xanaa Ibrahima Sagnane li mu wax jaaxal na la de mu ne ko waaw waaw jaaxal na ma ko mu ne ko Ibrahima day day suma rakk ju ma jege déggal ma lool am bis ñetti yoon ma tere ko ko te laajul ma lu tax ma lu tax moo tax ma buggoon bis boo xam ne dama koy topp ba mu soqeekoo ci reeni sëñ Tuubaa ma delloo ko ko ba mu ko ko joxee ba mu dellusee fii dégg naa woote na man de fekkewu ma ko waaye sëñ Ibrahima moo ma ko nettali bi ko sëñ Issa defee ba pare la ma woo wax ma ko ne ma sëñ bi de delloo na ma sama bis bi daal di ma nettali ni mu ko ko delloo nee na sëñ bi def ko woo mu toog mu ne ko Ibrahima amoon nga fi bis ma tere ko te neewoo ma lu tax ba ma ko defee lu ne dégg naa ko ci waaye la taxoon ma def ko dinaa la ko wax tey mu ne ko loola lan la mu ne ko da bayoon ba mu ñor meññ ñu bëgg ko faadaan te ñoragut ma bañ léegi nag ñor na jëlal sa bisango su jotati yëgaleel ba asamaan yëgaleel ba bitim réew kon kii seen ànd dara mënu ko gën a rafet de ni ñu meloo ñoom ñaar kenn ku nekk sa jikko dajale leen loolu moo tax ñu mën a jur lii ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñoom asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Hakim Serigne Mbacke Cheikh Mahamadou Al Basir Cheikh Abdou Karim di kilifa dëkk bi di borom dëkk bi di sun maam yàlla na fa yàggatu wér ak mboolem jullit di nuyu mboolem ku fi teew di góor ak jigéen mag ak ndaw di sof ay kàddu tuut rek ndax jamono xat na ñi bëgg a ñibbi fu sori bari na waaye eh, li ñu waajaloon pour waxtaan xëy na du fi xaj waaye ñu ñam ci tuuti rek waxtaan ba moo di ni ko sëñ Moustapha waxee mooy jàmmi réew mi jàmmi réew mi war na fu ay jullit daje fu nekk ñu di ko waxtaanee di ci bàyyi xel di ci def jàngat di ko jëfe mbokk yi réew mi doy na war a lool ànd yépp yàqu na yàlla àddina ba fi yàlla ba fi yonentu bi ba fi sëñ Tuubaa ak mboolem ku baax jublu saytaane dëgmal àddina te kenn du ko dab sëñ Tuubaa ko wax kenn du ko jàpp wala alquran a ko njëkk wax sax laay wax yonent bi jàngale ko ci hadis Serigne Touba ñëw dëggal ko ciy téere ay na maa takkoonoo yudrikumul mawt kon kenn du fégal bokk yi nañ seetaan ànd ak àndin wi te jaamu ji yàlla te ba umb umbal bi amul njariñ mag ñi sañcoon dëkk bi la nekkuñoon ci loolu dëkk bii Baye Ibrahima moo fi njëkk gane àddina mata jàng ñi yóbbu ko mu jàngi jox ko magam sëñ seex mu jàngal ko ñu teg sëñ Abdou Karim teg ca maam Layen doomi maam maam maam saa alquran maam Aliou Kouma mi bokk ak Aliou Kouma Baba Kouma ndey ak baay moo ko ko jàngal ba lëf xam mu dagg ko mais maa ngi dem liggéeyal sama baay kooku alxuraan moo ko jàngal boppam mën naa ne parce que la xaaf mooy fukki isib yu njëkk yi naas yi fukki isib lañ ko jàngal mu dem dagg ko dem liggéeyale baayam toog na fi ba ay bis yu ne mu wàccee kaamel mbokk yi ba kooku moo liggéeyal yàlla kookoo liggéeyal yonent bi kookoo liggéeyal Serigne Touba kookoo am ngërëmal ay way juróom kookoo defar ak bokk ak bokk lañuy ñuy waxtaane moo di ak bennoo sañee sa danaa wax ne mbokk léegi àllaagaay moo ko daan wax fii allagaay nag ci pël la yaakaar naa mooy bokk yépp yàqu dañ lu moo ko daan wax fii bokk léegi allagaay waaye ñoom ne seen bokk lu wér la woon dama ne sëñ Ibrahima dund na ba am juróom benn fukki at ak juróom mosta yendu fa sëñ Isaa xamut wala fu mu fanaan fa mën nañu ànd ci sareet sax ba ci sotogoon mu ne ko dëppal du ci teg baat innamal mu'minuuna ixwa fa aslihoo bayna axawaykum ku la woon ku amoon njëriñ ku amoon solo moo ma nettali ci làmmiñam ne ma bàyyi koo naa Dakar yor téeméeri junne ak ñaar fukk dugg sama nekk kër baabu fanweer laa dese barke sëñ Touba kooku àddina taxu ko a jóg su fekkoon àddina kese ko tax a jóg kër baabu ay immeuble immeuble a ngi fi sañee saa daan na wax ne su ma woote woon fii pësi dañ koy buux buuxloo waaye dara ñoruma bu leen neexee bu ma wàccee liggéey sax ñu sànni ma ci gajum njaañeen bi barab bi nii ñu ko def waxu ko de diglewu ko fii la daan taxaw ne bu ma nee bu ma faatoo su la neex ngeen sànni ma ci gaji bi waaye jëf du réer wa man araada laaxira wa saxee sa sayyahaa wa huwa mu'min mooy ku set wecc fa ulaayka kaana sayyu maskoor jëf ji yàlla gërëm a ngi nii bokk yi ne seetaat bokk gi te defer ko ba mu umbal beeg naxante beeg nafiq gi ànd ma dëgmal yàlla yàlla jaamu yàlla tax mu bind ñu wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun afa hasibtum annamaa xalaqnaakum abasan li ëpp ci àddina nag mooy dañooy jàpp li tubaab yi jàpp mooy doomu aadama na passe am ci àddina ku dee sayee du noonu de wallaahi azim ku ne ci àddina bii lu neex wax lu neex def fu la neex dugg diggante bu la neex yàq doo wax jàmm te doo ko def te foo tool naan jàmm jàmm boo duggee ci bàmmeel danga xam ne yàlla julli la santaane dañ dem jaamu yàlla te góorgóorlu ak bokk nag ak yéwénal rek mooy li ci am solo addina bi li ci li ci yàqu bari na te wa man arada an shukri fa inna lahu maysatan dankan maysatan dankan mooy dund gu xat dund gu mel ni li fi jaaroon ay naxi kese la tëj loo nit seeni i jàkk tas mbooloo yi te mbooloo doo ngay doole ku jàpp ne mën ngaa man ngaa dund sa bopp yow kese boo amee ñaari saako ceeb jàpp ne yaa yor àddina boo amee dépasse bu bis bu delsi jàpp ne bu asmaan si doon doon daanu nga nga nga nga nga nga nga gàttandu ko jàpp ne yaa gën say bokk jàpp ne yaa leen man jàpp ne yaa leen ëpp wërsëg boo guddee fan da nga xam ne yàlla julli la santaane wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mooy borom waaw julli rek a def lu baax sadiq ba fekke na rasulullah ay bay esa sanku ton dundam bay esa suma bay la doy na ndam ku ko xolaan do weran tene am na lu mbokk ak rasulullah rasulullah a babu kumba def leen ma nii waaw waaw def leen seen loxo yi ma ñëw waaw waaw dairatu kana haqan waaw na leen yàlla jàppale amin bi jaay rasulullah yal nañ ko amiin anda koom koom wasaka waya amiin bi jaay rasulullah nu sant soxna jaara ngir moonu may li nuy sampi daara bu ma tànkam lu bu ma tànkal bu di naxal ndoxam gi leen di tànkal cellantu leen te wubbi seeni nopp ak seeni xol mu wubbi seeni bopp tee leen seen waagaani xol de taatan maam jaara waame la ku yaa Tiwaawan taw na bawal taw na Kajoor taw njàmbur bawal a ngaan ku mar dëlëg doob njàmbur fi teew yëpp di nuyu mbokk taalibe fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa gi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi di kilifa ak njaboot gi muy Cheikh Abdoul Karim Cissé ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal mbir mi yëpp di nuyu Moustapha Cissé mi nga xam ne it moo fi teewal ñi nga xam ne ñooy kilifa aaday réew di di leen xamal ne man sama teewaay fii teewaayu mbokku taalibe ñëw ci ay bu ñëw ci ay taalibeem la ndax man ndigal moo fi andi Cheikh Mamadou Fall moom yabal ma teewal ko fi ne moom moo amoon yéene teewal boppam ci jotaay bi waaye jamono ak ni mu tëddee moo tax yàlla dogalul loolu ba tax na mu ne ma ñëw teewal ko fi maa ànd ak sëñ Mbàkke Ramata mi di doomu sa sa Mouhamadou Bassirou Touba Ndiaye Ndiaye xam naa loolu moom da ngeen ko miin lool moom it muy kilifa ak njaboot ga foofu ci ñoom ñëw teew fi teewaayam ak teewaayu njaboot ga yëpp itam di ñaan yàlla ci barke bis bi ak xasida gi ñu ko tuddee waqaana xat yàlla doon fi barke ak tawfeex taalibe bi nga xam ne seeni maam suuxatoon nañ ko fi loolu wéy di fi dund te mboolem loo xam ne ragaloo leen ko ci njaboot gi yàlla leen ko yàlla soril ba duñ ko gis te def leen itam ñuy dëgg-dëgg ak taalibe bi sëñ Tuubaa te sëñ bi nanguñu suñu taalibe bi itam ndax ñun loolu rek mooy li amal njariñ ñun àddina sàkkuwuñu fi dara ak topp yàlla dong lañu fi am ak doon taalibe Sëñ Tuubaa ndax moo na woo ci li nga xam ne it ci lañu gis suñu bopp moo taxit ñu wuyu ko ab woote nag bono woote bu bu wootee ku ne day wuyu si nag moom ndax kuy woote ba woote rek waaye ñii wuyu si moom xamoo li ñii wuyu si nag ay xaaj yu bari lañ kenn ku ne li ko tax ñu waaye ñun yàlla bokk yàlla ñu bokk ci ñi nga xam ne la mu woote ñun moo ñu tax te ñu te ñu te moom itam ndax loolu rek mooy li am solo ndax daanaka. suñu suñuy toppee doxin yi ak yenn mbir yi léegi-léegi da ngay dem ba da ngay xaw a fàttali la tax jóg lan la te doomu aadama moom bu fàttali ko tax jóg lan la rek li muy ñàkk ci àddina mu li muy ñàkk ñàkk ci àddina ak àllaaxira mu ëpp fuuf li nga xam ne moom lay am te mbir moo gis nit da ko wut rek léegi-léegi seytaane dana indi lu loolu ci wet nga teg ca ngir mu doon ak waru waru boo ko déggee mooy mbir yoo xam ne daanaka dañuy doon benn te duñ bokk ci aw melo dañuy xaw a nuroo waaye duñ bokk loolu mooy ak waru ñun nag sëñ Touba lii mu woote woote na ko rek nag ñu bari daañu ci mucc waaye na leen wóor na rek ko doon yàqit moom tekkiwul la xasaayam moom moom moom moom ba tey moo ko caag moom kon nañu xàmmee mbir yi bu baax nee lu ci nekk ñu xàmmee la ci sëñ bi bëgg ñu nekk ca la mu ca bëggut it ñu wàcc ko ndax sëñ bi moom lim lim bëggoon lépp am na ko moom xanaa kay ndimbal ak yërmande rek bu mu amal jaam ñi rek moo tax lii mënu digal lépp mu duñu ko digal lii mu nuy woo lépp mu duñu ci woo waaye moom ñàkkul dara lépp la yàlla mi maye te du jeexal dara moo ko may li mu bëggoon lépp mu am ko ñu nit loolu rekk la ñu yéene moo tax mu woonu ci boppam kon nañu bàyyi xel loolu bu baax te gën a góor gën a góorgóorlu ndax doomu aadama ak ñaar suñu borom bu ñu indi fii ci àddina ñaari mbir yi rek la doomu aadama am moom jaamu yàlla ak liggéey rek dong la doomu aadama am liggéey liggéey képp koo xam ne bëgg am sutur àddina faw nga nangu koo def ndax moom moo tax yàlla mën la caa suturaal waaye nag ku bëgg am teraangay àllaaxira moom ci jaamu yàlla nga koy amee ndax ndax àddina moom sutura fi am waaye teraanga moom àllaaxira la am ndax teraanga du ànd ak jenn coono teraanga du ànd ak jaaxle du ànd ak fitna moo tax foofu rek la am te lépp lu koy maye nag war nañ cee gën a góorgóorlu bu baax te bañ a topp yëngu yi rek yëngu-yëngu yu bari yi rek ak surux surux ji ndax addina moom ku fi yàlla indi nga koy judd fi rek am nga liggéey te dee dee moom danga nga koy kaalawoo yàgg yàgg bis dana ñëw nga jeexal la ngay dem na ñëpp rek soo defee woon dara nga bokk ci ñu am dara rek boo defutoon dara nga bokk ci ñu dut am dara rek loolu moom yàlla ñu ci yàlla musal kon nañu gën a góorlu bu baax te gën a sàmm ba li nga xam ne moom la sëñ bëgg ci ñuul te mooy yàlla yonente bi bëgg rek ñu mën koo defee nañu ko bëggee tey loolu it yàlla rek moo ca mën a dimbalee yàlla mi am dimbal yàlla ñu boole dimbali te boo ñu defal tawfeex te nangu ñu loo xam ne jàng nañ ko fii yàlla ko yàlla nangu te def ko mu di aw yiw sot ko ci mboolem jullit ñëpp daraja yonent bi ak Cheikhuna Ahmadul Xadim jërë ngeen jëf maa ngi leen sant bu baax te di di gërëm jotaay bi te di leen baalu àq nag ci kàddu yi jërë ngeen jëf salaamaaleykum